بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom di ko bàkk di ko kañ di leen nuyu nuyób lislaam di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu dégg diine point net di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci yërmandeem ji nga xam ne daf koy defal ñi gëm ak tawfiqam yàlla na borom bi defal nu ko te boole sunu jotaay bi ci jotaay yi nga xam ne daf koy barkeel moom sunu borom nu ngi julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain xanaa dina jaadu lool ci daje yu mel nii wala daje bu mel nii ñu jiital ak cant ak ñaanal yàlla ñi nga xam ni ñoom la borom bi subhanahu wa taala def ba ci seen sabab ci la daje bu mel nii amee comme ni ko mbokk mi doon junjee sànq wax dëgg yàlla mbokk yi ñu ngi dégg seen i yëngatu waaye xamuñu woon sax nii la demee nag moo tax leeral bi ci mbokk mi doon def léegi leeral la bu am solo jëriñu nañ ci jazakallahu xayran lii ay juhud la yoo xam ni dañ leen di ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu barkeelal leen ko te yokk ko waaye ma seetluwaat ci ni sabab la war a doon nag ci yeneen gox yi nga xam ni seeni jéego yeggagut fii ñu fexe def lu mel noonu ndax lii bokk na ci liy doxal ab daawa bu ñu fàttalikoo ci daawab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam jëmmi markaz muy ab makaan moom ci njëkk yi tewoo ca la bokk bu dee ca Madina amoon na bu dee ca Màkka amoon na boo seetloo daanaka activités yi ëpp solo yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na ko def ci daawa moo xam ci Màkka moo xam ca Madina bu nekkul ba ca jiitu di nga ni bokk na ci yi ca jiitu muy ëpp makaan boo xam ni fa la nit ñi di daje ndax nit ñi pour nga mën leen a organiser dafay am barab bu ñuy daje pour nga mën leen a organiser dafa am mbooloo mu ñuy tënku pour nga mën leen a organiser faw am ku jiite yii moom da di yoo xam ne mënul ñàkk kon daje bi nga xam ni ci mu xëyam la bu am solo bu mbokk yi organiser tànn it mawdoo moo xam ni solo si foo ko takk romb na ko ndax léeg-léeg thèmes yi nga xam dañ koy tànn di ci waxtaane lislaam danay gën di amante solo li ko waral mooy daf ci am yoo xam ne dëgg la l'islam lépp am solo waaye la ñuy waxtaanee te yeggagun ca wala soxlaagun ko wala tolluñ ci jamonoom jàpp naa ne bi ñuy waxtaanee te tollu ci jamonoom moo ko gën a ñor mu ngi mel ni nekkuñ ci aj ngay waxtaanee lu jëm ci aj nekkuñ ci koor ngay wax lu jëm ci koor loolu bokkut ak mawdu moo xam ni moom daanaka suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñi ngi koy dund nga xam ni xolub te titre thème bi nga xam ni moom la ñu tànn muy joyantiwaat lu jëm ci sëy yi ndax sëy ma mënut ñàkk aji gëm yàlla dana denc soxna bu dee mën na ko te toll ca ku jigéen ki danañ ko denc bu fekkee toll na ko toll na ca tànn ay waxtaan yoo xam ni dafay joyantiwaat loolu ñu xam ni mbir mi nekkut mbirum aada waaye nekkut mbir moo xam ni xel mooy rafet rek tër ab programme am teg waaye mbir la moo xam ni borom sharia ci boppam moo ko tër ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko kon su boobaa kat njàngale yooya jaar ca dafay am solo lool kon ñu ñaanal yàlla mbokk yi nga xam ni ñoo sabab lii yàlla na borom bi subhanahu wa taala dafa leen tawfiq ak taysir te barkeelal leen te baril seeni kem mawdu mi nga xam ne tànnoon nañ ko xam naa joyant gu ndaw gin ciy def mooy bi ñu tànnee ñaari mawdo yu toll noonu jox ñu ko wax dëgg yàlla gis nañ ni dana jafe lool boole leen li ko waral mooy azifaaf ci boppam dafa yaatu waaye alxitba tamit dafa yaatu donte zifaaf moo gën a yaatu xitba ci lañ def seetlu ni ñaari mawdo yi de boo leen boolee dañuy ragal ni dees na leen tënk benn bu ci nekk wa illaa du mën a nekk ci loolu ci lañ jokkoog mbokk mi gaaraloon ko ni ko tànnoon ci benn te jël beneen bi jox ko keneen loolu moo gën ndax su ko warul am na ay su su amut am na ay ruq yoo xam ni wax dëgg yàlla ci buntu leeral du mën a leer wala waxtu wi du ko maye ca noona ca lañ tànnee alxitbatu fi sunnati bayna axtaiha wa aadaabiha labat ci sunna diggante erreur yi ci nit ñiy def ak teggin yi nga xam moom la ci lislaam jàngale alxitba fi sunnati bayna aadaabiha wa axtaiha labat ci jëmmi boppam nan la ko lislaam tëralee nan la ko sunna jàngalee ak ban façon mooy boo xam ne su ko nit ki defee dana am ngërëmal sunu boroom tey tege na ci yoon wi nag pour maanaam sëy bu baax te barkeel yan mooy teggin yi lan mooy erreur yi nga xam nit ñaa ngi ko cay def wala lenn ci teggi nii lenn ci erreur yi bokk alxitba buñ ko waxee ci arab nga xam ni xaa ji dañ koy maas ci suuf def ko maas ab kasra mooy labat bu ñaal xutba nag mooy discours boo xam nit ki da koy def alxitbatu borom xam-xam yi jàngale lugal arabiya dañuy wax ni bu ñu commencé ci suuf mooy firi labat ci làkku arab labat mooy ku góor ku gis ku jigéen ku mu bëgg a denc soxna mu bëgg a xool ana wan yoon la mën a jaar ba jot ca soxna sa te dina am ngërëmal sunu borom ca doxin wa labat nag mooy tàmbali sëy saa boo xam ni am na day wane ni sëy mi ngi tàmbalee ubbeeku ay buntu labat moomu nag du du du takk waaye ab dig la nit ki bu labatee ab jigéen ba mu jox ko kàddoom wala ay way juram jox ko góor ki kàddu su boobaa day wane ni kat moom dig nañ ko waaye loolu tekkiwut ba léegi sëy am na ndax ndaw si jaambur lay doon ci yow ba tey ku góor ki it ku jigéen ki it ku góor ki jaambur lay doon ci moom ba tey lan mooy àtte labat ci lislaam àtteem mooy lu ñu sopp la waaye nekkul charte ci sëy nekkul waajib tamit nag labat ci lislaam du charte bu tax ñu naan bu amul sëy bi di wér waaye du waajib boo xam ne bu ko nit ki defut dañ nan ko def nga bàkkaar waaye nag lu baax la lu ñu sopp la lu ñuy soññee la boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom loolu la ñu wax bokk na ci aaya yi ñuy tegtaloo waxi borom bi subhanahu wa taala ci suratul baqara ci aaya ñaari téeméer ak fanweer ak juróom borom bi wax ni audu billahi min alsheitan irajim wala junaxa alaykum fi ma arradtum bihi min xitbati nnisaai aw aknantum fi anfusikum alima allahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwaciduhunna sirran illa an taqulu qawlan macrufa ila axiri al aya loolu mooy wane ni rek du aay nit ki gis ku mu bëgg bu fekkee ci buntu ku nekk ci ay dala mu defal ko ay junju bu nekkee ku amut ngant mu leeralal ko ba mu leer loola moom dara néewu ci aayut lislaam nag su ne nangam moom aayut mooy mu baax la lu dagan la ban xeriñteef moo nekk ci moom la sunu borom def ci labat shariatul islamiya ci boppam diina ju organisé wu la ci organisation boobu mu am ak bañ a bàyyi nit ñi kenn ku ci nekk rek ku ñëw rek indi sa xalaat mbir mi nekk ay folklore ki caaxaan sharia dafa tegal ku góor ki bëgg soxna ab xutta aw yoon woo xam ne su ca jaaree ak i bànqaas yoo xam ne bu ca jafdoo rawatina bu dee ndaw la loola mën naa sabab kam nar a associé pour dund dund ga du xajam ñaareel bi dafay waral bu ko yàlla wërsëgalee mu tàbbi ci sëy sëy ba mën naa nekk sëy bu lislaam gërëm ñetteel bi dafay sabab cofeel ak mbëggeel am ci diggante ñaar ñi ko séq ñeenteel bi dafay sabab xamante mën a am ndax nit boo ko xamee ci ngay mën a gën a jëflante ak moom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay mbir la yu bari ci loolu su amee kon day daal di saxal cofeel ak yërmande ak bëggante ñaar ñi ko séq ñu mën a dund ci ron keppaar ak sëy boo xam ni bu tedd lay doon ak dëppoo goo xam ni bu ñuy déggoo ci seen diggante la doon loolu moo waral mawdoo mi tënk nañ ko ci juróom ñaari tomb tomb ba ci njëkk moom moom laa junj nii mooy taariful xitbati wa bayaanu xukmiha leeral lan mooy labat ak lan mooy àtte labat ci sunna ñaareelu tomb bi mooy man tuxtabu ilayhi almara jigéen boo ko gisee nga bëgg ko ci kan nga war a dem yow ndax da ngay dem ci ndaw si baayam maamam ci kan ngay dem bu dee ci lislaam la ñuy wax ñetteel mooy dikru man la yajuuzu xitbatuhunna tudd ay nit yoo xam ne ñooñu moom daganut nga labat leen ñeenteel bi kayfa taxtaaru aw kayfa taxtaarina sharikata xayaatik aw kilahuma maan naka ngay tànnee ki nga fas yéenee àndal yow ku góor ki naka ngay tànnee ki nga fas yéenee àndal yow ku jigéen ki ci yan critère ngay sukkandiku ba tànn jëkkër ci yenn critère nga war a sukkandiku ba tànn soxna juróomeel bi al istixaaratu wal istishaaratu maan qabla al xatawaat diisoo ak listixaara muy ñaan yàlla loolu moom dafa mënut ñàkk mu jiitu bépp jéego boo xam nit ki nar na ko def ci labat juróom-benneel mooy xukmu nadari ila al maxtuubati wa xuduuduhu lan mooy atteb jigéen ji xool góor gi mu bëgg mu takk ko lan mooy àtteb jigéen góor gi xool jigéen ji mu bëgg a takk ak nu mu koy xoolee ak fan la xool ba di yem juróom-ñaareel mooy ma hiya al alaqatu al mubahatu baynahuma yan relation nag moo dagan te mën a dox ci diggante ñaar ñooñu bëggante kon juróom-ñaari tomb yi moom la ñu fas yéenee leeral insha allah tomb bu njëkk bi moom gis nañ ko mooy leeral lan mooy labat labat mooy xeetu jëflante waxtaan ak xamante buy dox ci diggante góor ak jigéen ku góor ki wàllam mu jëm ci ku jigéen ki ku jigéen ki wàllam jëm ci ku góor ki ngir loola nekk sabab ñu mën a miinante waxtaan ba xool ndax déggoo dina am ci seen diggante ngir ñu nekk ñaari way dencante loolu mooy labat nekkut sartu nekkul waajib waaye lu ñu sopp la lu ñu yoonal la lu rafet la ku ko def def na lu baax nekkul sabab buy tax ñu ni am nga soxna waaye sabab la buy tax ñu yaakaar ni di nga am soxna nekkul luy tax ndaw si lew la wala mu ñàkk a nekk jaambur ci yow déedéet waaye day wane ni kat léegi buntu tijjeeku na ci yow léegi nag nga war a dox ci yeneen buntu yey tijjeeku pour tax ndaw si lew la ba frontières yi l'islam të tëjoon yépp mën a tijjeeku ñaareelu tomb bi kon mooy man tuxtabu ilayhi al mar'a jigéen bu ko góor gisee bëgg ko nan la war a def njuumte bu njëkk ci bi ñuy def ñun ci wàllu sëy mooy da ngay gis ku bëggub jigéen rek daal dem ca ndaw sa direct loolu nekkul woon mooy doxalinu ñu njëkk ja donte na nit ki bu ko defee duñ ko wax ni def nga bàkkaar loolu tamit ñu bàyyi ci xel maanaam nit ki bu gisoon ab jigéen mu dem ca moom direct wax ak moom kenn duñu ko da ngaa def bàkkaar waaye dañ naan ko fi nga jaar de am na weneen yoon wu nu gën a loolu cosaan ci sunna day mooy jigéen soo ko bëggee da ngay dem ca kilifaam kilifaam mooy waliyum waliyum mooy ka ko mën a maye su dee ku bàyyam faatu la wala ko xam waliyum jege yu la nga doog a dem ca way juróom wu jigéen waaye daal na nga dem ca kilifaam loolu mooy doxalinu salafu saalix te it mooy yoon wa bay na xaw sey ni bi may def foofu doo ko jàll mooy ñu yëg ni tomb bii ñuy waxtaanee tomb la boo xam ni daanaka solo sëy lépp mi ngi ci biiram ñi xam sëy ak jafe-jafe yi am ci biir sëy boo leen laajoon ñoom dinañ la wax ni la problème yi am ci sëy yépp boo delloo source yi mi ngi ci labat ba parce que dafa am yu waroon a leer te leerul loolu moo indi problème tey dafa am lu ñu sartantewul woon te waroon nañ koo sartante loolu dafa indi problème tey dafa am lu ñu lu ñu sartantewul wo lu ñu sartante woon te kenn waru ko woon a sartante loolu daal di indi problème dafa am lu ko góor ki nëbboon te leeralu ko mu dem ba ci biir mu feeñ dafa am lu jigéen ki nëbboon mu feeñ maanaam su ma leen bëggoon a defal benn synthèse bu gàtt damay wax ni man ci gëstu bi ma def téeméeri nit yu daje ci wàllu sëy boo càmbaree problème yi ñu am dëgg-dëgg boo ko delloo juróom ñeen fukk yaag juróom yépp problème bi fii la juróomi nit rek ñooy yoo xam ni seeni problème daf leen a dab maanaam da nga dem ba ci biir muy loo xamante ni dafa ñëw dab leen waaye boo seetloo moo tax ñi nga xam ne yàlla daf leen a baaxee ñuy def ay jéego di wax ci sëy yu yàqu gi demee noonu xibra bi buñ ko amut mën nañoo ñëw di faj fu fee ku feebarut di faj ku feebarut wala di laal fu jàngoro niwut li ko waral mooy dafa am yëf-yëfaan yoo xam ne faw nga dellu ba ca gannaaw moo tax sàgganee point bi daanaka mooy sàgganee sëy sunna mooy ku jigéen ki soo ko bëggee nga dem ca kilifaam loolu bokku la ku góor nag bu ko ku jigéen bëggoon boobu dana ñëw kooku ku jigéen ki mën naa dem ca ku góor ka direct léegi nag moo gën donte ku ko defut kenn du la wax def nga bàkkaar foofu jàpp naa ne ñu bari ci ñun bu ñu xoolee kon jàdd nañ yoon wi foofu ñu bari ci ñun deful loolu Urwa ibni Zubayr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ba muy labat Aïcha dafa ñëw ci Aboubacar ni ko man de sa doom ji dama ko bëgg Aboubacar ni ko bëgg yow xanaa xamoon yow sama mbokk nga anta axi mu ne ko waawaaw man de sa mbokk laa innama ana axuka fillah wa fi diinillah wa kitaabihi wa hiya li xalaal bu dee mbokk kay sa mbokk laa ci yàlla waaye nag bu dee jëmmi lew ci sëy moom soxna si lew na ma bu ñu ma ko mënee may xadis ba mi ngi ci saxul Buxaari loolu benn la yeneen tegtal yu bari yoo xam ni saxaaba ya ak salafu saalix bu ñu mosaan a gis ku ñu bëgg doomam wala rakkam wala yu demee noonu dañuy dem ca kilifaam gaaral ko ko wala su ñuy dem ci ndaw si direct bu dee jigéen gi nag mag la mas naa sëy nga xam la ñu tuddee sayib jeeg kooka mën ngaa dem ca moom bu dee kooka la mën ngaa demal ca moom direct abu salama bi mu faatoo ummu salama des fa ba yonent bi ñaanal ko lam ko ñaanal xaatib ibni abi baltaata nee na man la yonent bi yabaloon ni ma demal ca ndaw sa muy ummu salama nee ko dama koo bëgg soxna xaatib nee na ma ñëw ni ko ah yonent bi dee ma yebal ci yow kon ci moom la ñëw ndax mag la booba ni ko dama la bëgg a denc umu salama ni ko ah man de am na ñaari gàllankoor yu ma gaar benn bi mooy damaa yor ak njoboot bi ci des neexut ba neexut mooy damaa fiir moom reconnaître na jàngoroom mooy dafa fiiroon fiir gu jéggi dayo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko bu dee fiiraange ji moom danaa la ñaanal yàlla mu wàññi ko ndax moom du dañ jigéen moom day fiir loolu mënul dañ jigéen bu fiirul sax mooy baaxut mu des nag lan mooy fiir ak yan frontière la fiir war a yam ñaareel bi mu ni ko doom yi day samay doom lañ kon gàllankoor yi jeex na ca la ko yonent bi takkee sallallahu alayhi wa sallam waaye nag loolu mooy bu ñu dee labat ndaw si joxe akooram joxe kilifteef waaye bu dara desul lu dut maye nag donte ndaw si sëyoon sëyoon na jeeg la mënta maye boppam bu fekkente ni nag yow yaa am rak wala doom wala jarbaat wala koo xam ne kilifa nga ci moom sharia may na la nga gis ku góor ku la doy nga gaaral ko ko sa doom sa rak sa jarbaat sa koo xam ne am nga ci moom kilifteef sharia may na la nga xool ku góor koo xam ne diineem daf laa doy nga woo ko gaaral ko ni ko kat dama bëggoon boo mënee nga labat diw ñu may la ko boo ko mënee takk ma jàppale la ci loolu mën naa nekk bu ngeen jàngee alquran gis ngeen góor gu baax ga gaaraloon ko yonent yàlla Muusa alayhi salaam inni uridu an unkixaka ixda bnataya haatayn ala an tajurni thamaniya xijaj ila axirihi Muusa alayhi salaatu wasalaam bi ko góor ga gisee xool ni góor gu dëgër la ku ragal yàlla la ci muwaasafaat yi nga xam ni soxna si di doom ji jottali na ko ko da ko gaaral ni ko man de dama amoon lu ma xalaat mooy sama doom ju jigéen yii di ñaar ci kër gi laa la bëggoon a may kenn dégg diine point net ba xissa ba jeex wa kadalika omar ibn alxataab radiallahu anhu doomam jooju di xafsa bi borom këram faato muy xunays ibni xudafat assahmi omar dafa ñëw di ko gaaral magi saxaaba ya bokk na ci ñi mu ko gaaraloon mooy Aboubacar bokk na ci ñi mu ko gaaraloon mooy Ousmane ak yeneen ak yeneen fekk ñooña yëgoon nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi labat mi ngi bëgg Hafsa te Omar yëgut loola. foofu am na nuqta bu am solo bu ma ci soxla boo xam ni dina ñëw ci istixaara ak istishaara ñu jàpp ko denc ko ba foofa mooy diisoo ci jëmmi boppam sax dañ ciy def ay njuum te parce que niñ koy foogee jëmmiwut noonu. ndax Omar li muy jege jege jege yoon sa salam bi mbir mi yegsee diisoo wu ceeg moom dafa dem diisoo keneen loolu na tomb la bu am solo bu ma tabàyyi xel am na am na lu ko waral. kon mi ngi noonu ki am rak wala jarbaat wala doom waxuma sax dafa dafa war a mën a nekk waaye dafa jaadu dafa rafet dafa baax. au lieu que nga bàyyi ko muy tànnal boppam mbaa ñu di ko tànn si yow nga gaawantu tànnal ko xoolal ko loolu moom ku jàng siratu salaf gis na ni bari woon na lool nga xam ne dañ doon gis ku baax ku ñu wóolu diineem ak jikkoom ñu gaaral ko ko léeg-léeg nit daan ànd ko xaritam ba mu yàgg mu ne ko man damaa bëgg nga ñëw takk sama rakk léeg-léeg nit daa am surga bi ci kër gi ba mu yàgg mu ne ko yow de kaay may la sama rakk comme ñoom Abdurahman ibn Awf ni ñu defoon ak ñeneen ñi ci saxaaba ya ak yu demee noonu wa kadalika dagan na it jigéen gaaral boppam góor bu dee góor dañoo waxoon ne mu dem ci kilifa ak ndaw sa moo gën donte bu demee bu deful noonu it amul bàkkaar waaye nag jaaroo ci yoon wa jigéen may nañ ko mu ñëw gaaral boppam góor bu fekkee jigéen ci moom dañ koy tànn si xamul kañ lañ koy tànn si xamul ki koy tànn si kan la te moom gisal na boppam góor goo xam ni daal jikkoom doy na ko diineem doy na ko mu gaaral ko boppam loola bokk na ci sunna benn bis ci bis yi yonent bi dafa toog ak saxaaba yi ba mu yàgg benn jigéen daal di ñëw ba taxaw ci kanamu yonent bi tiim ko sallallahu alayhi wa sallam tiim ko ni ko man day dama laa bëgg a may sama bopp maanaam damaa bëgg nga takk ma ci gàttal bi mu ne ko damaa bëgg nga takk ma yonent bi daal di siggi xool ko ba pare daal di sëggaar loolu nag dina ñëw insha allah waaye li ma soxla ci waqfa bi mooy anas bi muy nettali xadis bi daa fekk doomu anas bu jigéen mi ngi teew maam ci suñu làkk ñun wolof xam nga léeg-léeg nit da ngay wax dara rek mu tiit lu tax muy tiit mooy dafa jàpp ni loolu mbirum kersa la kenn waru ko wax ndaw si mel ni ku ni wuy fu ñu jëm ki dafa tof xanaa maanaam ndax dafa jàpp ni jigéen ju am kersa warta mën a def loolu ndaw si mu ni waa saw ata man de woo naa gàcce gi ma man de gàcce gi ma am tey xawma fu ma koy waxee ji gàcce gi mooy ndaw si naka la mën a amee audace ñëw ba ci yonent bi tiim ko naa ko dama laa bëgg loolu jigéen war na koo rus gone gi daal ni kii moo ko ñàkk kersa dëgg dëgg dëgg anas ni ko déedéet ñàkkut kersa te moo la gën anas ni ko ndaw si ñàkkul kersa te moo la gën ndax soppe soppe yi la bëgg sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu imam buxaari yi génne na ko imaamu nasaayi génne na ko ibni maaja tamit génne na ko kon loolu day wane ne jigéen mën naa gaara ba moo tax alimaamul buxaari ci saxiixam dafa ubbi benn buñ tuddee ko baabu ardi almarati nafsaha ala rajuli saalih bunt bi dañuy permettre jigéen mu gaaral boppam góor gu baax waaye nag ala rajuli saalih baatab asaalih jooju yenn ci borom xam dañuy wax ni imaamul buxaari fiqam da nga koy xam ci ni muy tëggee ay buntu waaye wax jooju wax ju wér la baatab asaalih ci boppam bi ñu ko seetloo dañuy gis ni su ci amee rek complexe bi jigéen doon am pour gaaral boppam góor dootut amati am na jigéen joo xam ni gis na góor gum bëgg te doy na ko ci diine jikko waaye dafa mel ni obstacle bi dox ci digganteem ak moom mooy kersa gaag su ma ko waxee mu gàntal maag mbaa duma ko wax mu génn di ko waxee waat feneen ak mbaa duma siiw yooyu yëg ngay xalaat ala rajuli saalih mënta def loolu rajulu saalih du def loolu moo tax kon problème mooy bala ngay lijjanti ndax naa ko def ak duma ko def wala mën naa ko mënuma ko da ngay lijjanti ndax hada rajulu rajulun saalih am laa ida kaana rajulan saalihan fala taxaaf aw laa taxaafi loolu amul muskila boo ko ko gaaralee su mënee nekk day nekk su mënte nekk mu gàntal la mu jeex ci gàntal bi gën a rafet gàntal ba it nag day rafet alxaafid ibni xajar bi muy sarxa buxaari ba yegg si xadis bi dani fiihi jawaazu ardi almarati nafsaha ala arrajul day wane ni dagan na jigéen ñëw gaaral boppam góor pour mu takk ko xamal ko li nekk ci moom xamal ko xememteefam te it nag benn problème amu ci ci loolu laa gadadata alayha kenn du ko ci yedd kenn du ni ko da ngaa ñàkk kersa kenn du ni ko yow jigéen ju bon la loolu nag benn bi ci jigéen ñi lay gaar bi ci des ci góor ñi la bi gaar jigéen ñi tudd naa ko mooy jigéen ji foog ni lii kat dafa rusloog dafa nangam ak mbaa duma ko gaaral mu demee ni yooyu moom jëru ko ida kaana rajulan saalihan góor ñi bu ñu gisee jigéen ju jàpp gaaral boppam góor dañuy jàpp ni kii dafa ñàkk fayda déedéet am na saxaaba yu am fayda yu ko defoon bal nag ka jiite woon ñu am fayda ña ci jigéen ñi da koo defoon muy xadija radiallahu anha te ku ne xam na xadija fa mu toll ci sunu boroom ak sunu yonent yàlla yabal na jibril mu ñëw ci kër yonent bi wut si wu fa dara lu dul jibril ni ko kii di waa di ñëw kan la mu ne ko sa soxna la muy xadija mu ne ko nee ko yàlla nee na tabaxal na ko benn kër ca ajana xoola ko ku dayo bi mu am xadija moo yabaloon ab jigéen bu ñuy wax na fii sa mu gaaral boppam yonent bi ni ko na ñëw takk ma dama ko bëgg kon sellaange jigéen ak mbaaxaayam warul dox ci diggante ma mu gis góor gu mu bëgg gaaral ko ko waaye nag day fekk ya war a daje daje amma nag ñenn ci jigéen ñi niñ koy defee tey ci jamono moom loola moom jaaduwut di bind ay message ak dem ci internet beeg journal yeeg yu demee noonu di léeg-léeg sax ñenn ji di wane seen jëmm wala di bind benn article bu wane yow kat jigéen ju mel nii nga nangam da ngaa bëgg jëkkër déedéet loolu moom dafa dàqonteeg njàngalay sunna dafa dàqonteeg njàngalay sharia boo amee koo bëgg daal gaaral ko ko bu fekkee mën ngaa dem gaaral ko ko sa bopp nga def ko soo ko mënul nga yebal ka nga mën a yebal jigéen mën naa am kum bëgg dem wax ko baayam jigéen mën naa am kum bëgg dem wax ko magam wala rakkam wala xaritam wala xaritu waaja yooyu yëpp ay buntu la yoo xam yu mën a nekk la kon daal ci labat la nekk yoon mooy nga dem ci kilifa ak ndaw si bu dee ndaw si mës naa am jëkkër nga dem ca moom su dee jigéen ji la sañ naa dem yóbbu boppam ca ku góor ka gaaral ko boppam wala bu fekkee munu ko kersaam may na ko mu yable yable ga nag demal sa bopp yable wax ko sa kilifa woote téléphone yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam bu fekkee nit ki la muy dox fulla la mën na koo def wala gadada comme ni ko ibni xajar waxee kon daal ci gàttal jigéen nii lañ koy labatee bu dee moom jigéen ji moo gis kum bëgg nii la koy labatee ñetteelu nuqta bi mooy ñan ñooy ñoo xam ni daganuñ nga takk leen ñooñu nag sunu borom tënk na ko ci benn aaya ci alquran حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين ñoo xaraam nga takk leen aaya jooju moo tënk almuharramaat muharramaat yi nag ñi jàng fiq dañuy wax ni am na muharramaat yoo xamante ni xaraam gi ala tabid la mooy ba faw doo leen mën a takk am na ñoo xamante ni xurma gi ala taqid la mooy am na ab bu mu yem am na koo xam ni araam gi mu araam ci yow nga labat ko pour takk ko ba faw fii ci àddina moom du ngeen fi mën a takkante am na koo xam ne xaraam gi mu la xaraam dafa am fu muy yem am na koo xam ne araam jim la araam dafa am lu ko waral loolu ko waral lu war a mën a daj la te bu dajee nga mën koo takk yooyu yëpp yu ma ta bàyyi xel yii nag dama koy isaara rek waaye damay ragal ni buñ ci jógee ci ay tafasil day jël suñu waxtu waaye daal li ma bëgg nga xam ko mooy am na ñoo xam ni la ko waral mooy ndaw sii da nga koo takk mënoo takk kee di rakkam li tax mënoo koo takk mooy an tajmau bayna al uxtayni la ñuy bañ dañuy bañ nga boole ni tëkk bokk ak ndey ak baay kon kooku su faatu woon mën ngaa takk rakkam soo ko wàccoon tamit mën ngaa takk rakkam waaye boo ko wàccee bala ngay mën a takk rakk ji day fekk idda bi jeex su faatu woon nag mën ngaa takk rakk ji ci jërul xaar idda parce que faatu amul idda bu ñuy xaar foofu pour takk ndax góor du jël idda am na koo xam ni mënatoo koo takk parce que sa papa moo takk yaayam waaye bu takkul woon yaayam mën nga koo takk am na koo xam ne mënoo koo takk parce que sa rakk la sa yaay ak lu la fare ci wàllu yaay maam ak maamaatam ak lépp lu la lu la féete yaay mooy ummahaatukum banaatukum mooy say doom même doom ji bu dee doomu njaalo la xam ngeen doomu njaalo ci sharia du doom ci miraas du doom waaye nag ci takk doom la ci takk doom la ndax ci mel ndox mi la jóge moo tax doo ko mën a takk sa doom mooy banaatukum sa sœur koo bokk ak moom ndey ak bàyyi ko ngeen bokk benn bàyyi ko ngeen bokk benn yaay ñooñu doo ci mën a takk kenn ki nga bokkal ndey doomam ki nga bokkal bàyyi doomam ki nga bokkal ndey ak bàyyi doomam ki nga xam ni yaag moom da ngeen a nàmpandoo it doo ko mën a takk waa ji nga xam ni yaag moom benn meer nampal na leen ndaw si nga xam ni benn meer nampal na leen nampal ga moo xam sa yaay dafa amul woon soow ñu jox ko moo xam daf dalaan nax di la nampal moo lu mën a nampal na leen yéen ñaar du dagan nga takk ko doomam it du dagan nga takk ko mooy axawaatuku min arradaa foofu nag xorma gi ci yow la yam doom ji nga xam ni da ngeen a nàmpandoo kooku lañ la wax waxuñu la rakkam waxuñu la magam ki nga xam ni da ngeen a nàmpandoo ci yow la xaram waaye yow sa frère yow ku góor ki su ko bëggoon mën na koo takk parce que sa frère nàmpandoowul ak moom yii may wax ni ay masala yu sew la yoo xam ni maanaam nit ki mën naa xam ni nàmpandoo dafa xaram sax nga takk ko waaye doo xam yu sew yi nekk ci biir sa frère bële bokk ak yow mën naa takk ndaw si nga nàmpandool parce que yow yaa nàmpandoog ndaw si ci benn yaay waaye moom nàmpandool ci nàmpul ci ndaw si kon li tax ndaw si xaram la mooy yaayi ndaw si dalaa nàmpal yow li tax sa frère du ko araam ci moom parce que yaayi ndaw si nàmpalul sa frère yu sew sewaan yooyu yu mat di bàyyi xel la lii nag soo gisee ma ciy insisté mooy saxaaba yi sax dañ ci daan juum léeg-léeg njuumte gi ñàkk xam da ko doon waral léeg-léeg njuumte gi ñàkk yëg da ko doon waral gis ngeen Uqbat ibn Amir ñëw na takk benn jigéen joo xamante ni da ko mu ñoo nàmpandoo ndaw si benn meer ñëw gën a si leen gis loolu ni ko ah yéen de nàmpal naa leen Uqbat ibn Amir wal giréem ñëw ba ci yonent sa salam wax ko ko yonent bi ni ko wax na dëgg de sëy ba day tas ñu tas sëy ba li tax sëy ba kon wa ummahaatu nisaikum sa soxna yaayam foofu bu jigéen takkoon soxna bu jigéen takk bu góor takkee soxna yaayi soxna si dootul daganati ci yow même boo wàccee soxna si yaay ji dootul daganati ci yow bu fekkee jot ngaa sëy ak moom charte bi mooy bu fekkee jot ngaa sëy ak moom ki nga takkit doo mën a takk doomam wa rabaa'ibukum allaati fi xujurikum min nisaaikum allaati daxaltum bihinna mooy doomu jiit la joo xam ni ah sëy nga ak yaayam tey benn jigéen a ngi nii am na doom feneen yow nga ñëw takk yaay ji bi nga takkee yaay ji doom ji day araam ci yow nga takk doom ji yaay ji day xaraam ci yow waaye nag allaati daxaltum bihinna jigéen ji nga xam ne jot ngaa dugg ci moom tey ndaw si bu fekkee jot ngaa da nga koo takk fekk sëy nga ak moom su boobaa dootul dagaan ci nga takk yaayam su fekkee yaay ji nga takk sëy ak moom doom ji xaraam na ci yow foofu nag fuqaa yi dañuy wax ni soo takkoon yaay ji te jotuleen a sëy maanaam ñu mu ngi nekkoon fële mu nekk fële ñu may la ko dara xewul sëy bi daal tas bu la neexee doom ja nga takk parce que doom ji doomu jiit la du sa doom yow waaye nag boo xësee sëy ak yaay ji rek comme mooy yaayam rek daganatul mu nga takk mooy fa in lam takun daxaltum bihinna fala junaha alaykum wa xalailu abnaikum alladina min aslaabikum sa jabari doom sa jabari doom waaye doomi dëggantaan gis nga min aslaabikum mooy doom joo xam ne yaa ko jur mooy doomi dëggantaan moo tax gis nga alquran làkk bu bu bu am fasaaxa la maanaam dafa leer leeraay goo xam ne maanaam commentaire buy indi jaxasoo dootu ci amati xalailu abnaikum alladina min aslaabikum sa jabari doom doom joo xam ni sa geño la jóge waxuñu doomu jiit li sa doomu jiit la tey bu takkoon jabar jabar ji mu fat foofu mu boo ko defoon Sénégal léegi dañ lay génn nag moom sa doomu jiit le maanaam soxna si bi muy sëy si indaale na benn xale xale xale bu màgg nekk góor takk soxna bi mu takkee soxna dem yàgg mu wàcc soxna sax yow bàyyam bàyyi jiit leen bi nga ñëw takk soxna si loolu boo ko defoon fii Sénégal da ngay génn moom waaye mën naa nekk alxuraan la de mën naa nekk de su dee doomu jiit la moo tax min aslaa bi ko mooy doom ji nga jur doom ji nga jur moom bu xësee takk soxna takk na ko rek sëy naag moom sëyut ak moom maadaama dem nañ nee nañ may nañ ko diw rek araam na ci yow ala tabiid dootul mën a nekk gis nga wa an tajmaa bayna al uxtayni mooy nga boole ñaar ñu bokk ndey ak baay ñaar ñu bokk benn baay ñaar ñu bokk benn yaay ila axirihi mooy al uxtayni loolu daganut kon yii mooy yi nga xam ne dafa xaraam ci tënk mënoon naa gën a yaatu noonu bokk na ci xaraam mooy ñaar ñi rëbbonte waa ji nee na soxna si dama koo fekk ak góor muy njaalo soxna si ni ko waxoo dëgg coow li jëm kaw ñu ñëw ci attekat bi attekat bi ni sawaay mu ni maa ko gis ñu ni sawaay mu ni waxu dëgg su boobaa dañ daan leen rëbbonte leen giñante leen mooy ku góor ki danaan billahi wallahi tallahi maa ko fekk muy njaalo ba muy ñeenti yoon juróomeel ba mu ni su fekkee lii ma wax du dëgg yàlla naa dee tàbbi sawar ku jigéen ki mu ni billahi wallahi tallahi comme ni ngeen xamee giñ rek ala kulli xaal ci nu mu giñee ci giñ ñi dagan kii li mu wax du dëgg su dee li mu wax dëgg la yàlla naa alku man su eggee ci juróomeel dañaan ko sawaay benn la dese daa giñ giñaat giñaat giñaat dañuy téye ci loxo bi ni ko sum waay benn la dese xoolal li ngay def de li may wax mi ngi suuratu nuur xoolal li ngay def mbugalum addina gàccek addina gàcceku gàtt moo gën gàcce gu gudd te nga bàyyi li ngay def nga xoolaat ko bu baax su continuer nag mooy war a ne ñeme na li muy def bu nakk nakkalee ñu xam ni kii kat moom am na ko commencé def ci man sosan bañ ne ko sum waay xoolal li ngay def rek mu commencé nakk nakkal naan waaw xaaral di wax ay wax gis nga léegi su boobaa qaadi danaan sëy bi tas na boobu mooy àtte bu njëkk bi ñaareelu àtte bi bu ñu nee ndaw si jëlee na ci ëmb kenn du ko wax doomi njaalo la wala du subha lañ koy tuddee doomi lënt la kenn du ko wax doomi njaalo ñoom ñaar suñu teqalikoo moom fii ci àddina dootuñ takkanteeti abadan moom fii ci àddina moom jeex na mënatuñoo takk ak lu mën a xew même luñ mën a defaraat ñoom ñaar duñ mën a àndati ci kaw suuf yooyu mooy àll tahbit mooy koo xamante ni ba faw comme sa yaay soxnaak wala sa yaayak wala sa tàntaak wala sa ñooñu nga xamante ni moom ala tahbit la moom ba faaw amul luy xew ci kaw suuf fu ñu mën di wëlbati ko mënul teg sa doom ji nga jur ak sa doom ji sa mag jur ak yooyu yëpp mënul takk ba ilal abad su boobaa kon ndaw si mu laa ana day waral dootoo ko mën a takkati bokk na ci yi waral jigéen doo ko mën a labat mooy mu nekk ci edday jëkkër ju faatu mooy aay ji ma jàng wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min xitbati nnisaa wa kanantum waaye nag labat googu ñuy tere mooy labat goo xam ne dafa leer jigéen ji du nekk di eddawu ñeenti weer ak fukki fan fi jëkkëram faato ba keroog bi mat ñeenti weer ak fukki fan foofu góor sañu faa ñëw naa ko dama laa bëgg waaye nag sañ gaa junj sañ gaa junj junj mooy wala junaha alaykum bàkkaar nekkul fi ma arradtum bihi min xitbati nisa mbir yoo xam ne da nga koo gaaral ah maanaam gaaral goo xamante ni xëy na ay ishaaraat lay doon nu ki mel ni ah sa waa ji de yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na yàlla jéggal ko nun day bu soobee yàlla fas yéene nañ leen a jàppale ci njaboot gi lun man daal di noppi gaa yi ngi reere xaw ma dañ ko mos a def wala déet kooku benn la ci kinaayaat yi bu dee fii ci Sénégal da ngay gis ku naan summi naa fi saa bolok boobu nag man wax dëgg yàlla góor gi ñu doon jàngal fiq dama ne ko ah bu dee lii kinaaya la de man xam naa ne kinaaya la bu leer de moom ndax bolog moom moo ko sumi moom xam naa ne daal ab junj la waaye man de rafetluwuma junj boobu moom donte nag fii bi ñuy jàng fiq loolu la ñuy wax waaye man moom junj boobu moom rafetluwuma ko dara ndax moom junj bu leer la de moom léeg-léeg mën ngaa ñëw nga ne ko ah bu leen ñu fàtte ci ñaan waxtu wi nga toll de waxtu ñaan la ñaanal leen ñu yàlla wërsëgal ñu soxna yu baax ak njaboot yu baax daal di noppi loolu tamit ci kinaayaat yi la bokk nga xam ba léegi waxoo dara am na ci ñenn ci salaf ñu wax ni mën ngaa dem ci kilifaam ni ko bu summee na ngeen ma ko yëgal daal di yem foofu loolu moom asar la boo xam ne bu wér la dama xa teewlu wallahu alam bayna musannaf ibn abi shayba wala musannaf abdirazaq benn ci musannafaat yooyu mi ngi fi lu wér la ni salaf doon nañ ko def wax ko kilifaam nga xam doo ko wax ndaw si amaa jëmmi ñëw direct nag ni ko boo summee dama laa bëgg wala nangam loola moom du noonu njuumte la su ko nit ki defee ne def na bàkkaar waaye nag ndax bu ko defoon day waral ndaw si araam ko comme ni ko ñenn ñi waxee déedéet dootul du la araam de waaye def nga bàkkaar lañ lay wax te it loolu ci wàllu xellu wax dëgg yàlla ku am tuuti xel du ko def ndax ki borom këram faatu xamoo fu mu tolloon ci borom këram bàyyi ko ko njaboot wala bàyyiwu ko njaboot xamoo ba xam xolam dañagum na ci am ndéet gis nga foofu góor ñi nañ bàyyi xel ni am na ñoo xam ni boo leen waxee foofu mbirum labat fa lañ lay bajee ala tabit nag loolu ngeen bàyyi ci xel am na jigéen joo xam ni boo ko waxee foofu moom ñàkk nga ko ba faw dootoo ko amati te it nag alxubbu lil xabibil awal cofeel moom lay yàgg a des ci soppe bu njëkk bi de doo ko gaaw a fàtte kon ki nga xam ne borom këram faatu na fekk bëgg nga ko islam may na la ko dara newu ci ah mën nga koy dimbali na nga fex ba la ngay def nag mu nekk ngir yàlla donte léeg-léeg def ko ngir yàlla nag mën naa jafe léeg-léeg mën nga faa jaar dimbali ko meew bu mu jënd suukar bu mu jënd ila axiri toppatoo ay goneem ba léegi waxoo dara yow waaye bëgg nga ko loolu nag l'islam may na ko dara newu ci la ñuy bañ rek mooy nit ki nekk ci tiis ba nag nga ñëw di ko wax ay mbirum sa yëg yu demee noonu loolu dafa xaram kon kooku mooy kiy eddawu ci faatu wa kadalika kiy eddawu ci pasem fayli kooku kenn du ko labat pasem fayli mooy waa ji ni soxnaam fase naa la mu moo xam ci kër gi la nekk moo xam newu ci kër gi comme ni ngeen ko gisee ndax muskila yi ngeen di régler nii yu bare bare bare am na ci ndax même ci wàllu fase bu ñu ci dooxtaan fi ne fase kenn du fase soxna si mu dem kër lu dul ngant dafa am boo ko fasee mu war a eddawu edda bi bu jeexagut sa soxna la ba tey foofu dafa xaraam nga labat foofu tamit kadalika maanaam dañuy tere nit ki ñëw di wax soxna si dama laa bëgg ak wala boo kiyee naa la dinaa la takk ak wala nangam déedéet yooyu kenn du ko def xëy na bu mënta ñàkk ba mënta ñàkk dénk soxna si ragal yàlla ah bu yeboo nga góorgóorlu kat sa waaye de boo mënee delluwaat ak moom moo gën boo ko nangam bu dul loolu ah bu fekkee diggante bi jeex na xëy na yàlla war a sëgal la keneen ku baax nga yam foofu ah dellu de moo gën moom wax dëgg yàlla ndax teqali ko moom amul njariñ bu dul loolu nag ah manees na laa wutal geneen góor gu baax daal di noppi wa kadalika kii eddawu pasem jeex na kii eddawu pasem jeex na ca biir edda ja tamit fasem jeex na mooy fase nañ ko fasewaat ko fasewaat ko muy ñetti yoon sayee mook waaja kon sayee la waaye ba léegi ci eddaam la nekk boo koy labati junj lay doon ba léegi kon kii eddawu pasem pay li kooku moom bañ caa wax sax moo gën kii eddawu pasem jeex na mook kii eddawu ku faatu ñoo bokk atte mën nga koo gaaral ak junj boo xamante ni junjub sànni ci kaw jaww ji rek lay doon xeet bu nekk ak nañ koy defee nag amul sariya kinaay lum ñëw ni nii lañ koy defee nit ñu nekk ak nañ koy defee ah ñi ne wax nag ma bàyyi xel ñi naan nag nangam ñi naan def naa lii def naa lee sumi naa samay daal sumi naa samay marakis ila axirihi comme ni ngeen ko xamee ci yéen waa réew mi waaye nag yooyu wóoru ndax mën nga wax sumi naa samay marakis ñu ne la fabaat ko xam nga jamono jooju moom wax dëgg yàlla bu dee kuy eddawu la ci faatu moom la gën la gën mooy bu mënta ñàkk sax nga wax ko kilifaam kilifaam lii day mënee su koo wax waaye nag boo eddaam jeexee daal ngeen yëgal ma ko daal di nopp fekk kilifaam nga koy wala koo xam ni jàpp nga ni jege na ndaw si moo xarit moo xam xaritu benn bakkanam la boo xam ne du mu dugg lu muy génn da koy xam moo xam lu mën doon daal nga gaaral ko ba ma ñuy bañ a yegg ci ndaw si loolu mooy li gën a nekk ay teggin wallahu aalam wa kadalika du dagan nga labat ci sa kaw labatu mbokkum julit sa mbokk muy labat soxna nga yëg ni diw mooy labat diw nga di ca labat dafa xaraam yent yàlla bi wala yaxtubu rajul ala xitbati axii xatta yankixa aw yatruka xadis bu buxaari ak muslim solo nañu bu labat ci sa kaw labatu mbokkum julit lu dul moom moo bàyyi wala moo takk xadis ab ibni omar bu ne yonent bi dafa tere nga jaay ci sa kaw jaayu mbokkum julit waa ji yaa ngi ko fekk mi ngi waxaale kii nga ni koy kaay ma jaay la bii moo gën a baax wala na déedéet loolu daganul bàyyi ko mu waxaale bu jëndul nga doog koy jaay wala am naa bu gën bii wala am naa beneen wala tee ngaa ñëw nga xool bii comme ni ko jaaykat defee déedéet amul beneen bu muy xool na xool bi muy xool bu pare bul fekk sa mbokkum julit di labat nga ñëw labat lu dul moom moo la jox ndigal wala mu bàyyi foofu nag bu dee jullit lañ wax waaye borom xam-xam yi nee nañ bu fekkee yéefar la donte am nañ ci juuyoo kay labat du julli sa yoon néew ca yow sa yoon néew ca labatam googa kii labat ab saay-saay la ab bandi la naankatu sàngara defkatu lu bon la donte sa mbokkum jullit la ñenn ci borom xam-xam ñu ni maadaam ab faasiq la waroo ko waroo te waru laa baare yow parce que li tax waru laa baare mooy kon yaa ngi bàyyi sa mbokkum jullit muy dem ci lu mu xamul ñenn ñu ni déedéet maadaama faasiq la bàkkaar ba digganteem ak boromam la yow la la war mooy sa bokkum jullit la te it bàyyi leen xel ni diw a ngi labat diw nga yëg ko ba noppi di labat adaaw ak saxnaa da koo mën a gaaw a jur diw kat yëg na ni maa ngi labat diw ba noppi mu dem di fa wax ay kàddu wala mu defa dem ak may jaay sama marchandise mu ni kaay xool bii wala bi yëg gën a baax wala yu demee noonu loolu mën naa jur bañante te charia day tere luy ubbi bunt yooyu yan xadd mooy moom la ñuy maye ba tax ñu ne la do dafay araam nga labat sa kaw labatu mbokkum julit ndaw si waa ji da koo gis ni ko bëgg naa la ndaw si ni ko waa baax na dégg naa ko maa ngi ciy xalaat ndaw si néewu ko waaw amagul benn accord benn jéego amul àggu ci kilifa déedéet foofu araamul donte nag bàyyi ko moo gën maadaama gis sa mbokkum julit wax na ci waaye foofu xaraamul waaye nag bu fekkee daf ko koo wax ba ndaw si di ko may ma ma xalaat ci wala wala wala wala waaw jox naa la sama kàddu gu njëkk donte àggagul ci ay kilifaam wala mu yegg ci ay kilifaam foofa daganatut nga ñëw di ca wax yow waaw loolu jom sax pour man sax jom mayewu ko waaw jom nit ku am jom fonk boppam sax warul nangu di def lu mel noonu parce que loolu maanaam li ci ëpp boo seetloo ku doyadi ku doyadi mooy def loolu waaye jigéen loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg maadaama yëg nga ni am na ku ko bëgg am na ko léeg-léeg nag jigéen ji mën naa am ñu koy bëgg te moom tànnagut mi ngi tànn ah suba mën ngaa gaaral sa bopp yow it am na ku koy bëgg wax na ko ndaw si wax na ko waaw wala déet ñu ne déedéet waxagu ko waaw ay kilifaam yëg nañ ko wala déedéet est ce que nangul na ko ñu ne déedéet gaaral na sa bopp yow it su dee bëgg nga daw si donte nag boo yëgee ni sa mbokkum julit jot na faa jaar wax bàyyi woon ba mu génn wala mu retiré ay kàddoom moo gën kon daal ci gàttal ñii ñooy ñoo xam ne daganul nga labat leen ñii ma mujjee wax nag ñoo ci gën a waaye bu dee ñële nag moom ku dellu ca aaya jooja tafasil yaag yooya ma nga ca wallahu taala alam ñeenteelu tomb bi mooy kayfa taxtaaru zawjatak aw kayfa taxtaarina sharikata xayaatik aw kayfa taxtaaru sharika xayaatik yow ku jigéen ki naka ngay tànnee nag jëkkër yow ku góor ki naka ngay tànnee jabar tudd nañ lan mooy labat wax nañ koy labat kan nga war a labat ak koo warta labat ak noo koy labatee waaye nag tombab tànn nag ki nga war a labat kan la tom bu am solo nga mbokk may wax ni yow suma mbokkum julit mi yow suma mbokkum pas-pas mi ngal la waay xër ak yàkkamti ak seytaane bum la jañax ba nga jàdd yoon wi ci ni ñuy tànnee yow ku góor ki góor-góorlu bu baax xam ni jigéen la ko takk tekkiwu nit ak jikkoom yomb la teqatle te sëy yemul ci benn fan tànn koo xam ni bëgg nga ko mu bëgg la ay jikkoom doy na la ay melokaanam doy la nga xam ni même bu amee ay bu cay amit bu ñuy mën a muñ lay doon parce que li baax su ëppee li safaan la ca des mënees na koo muñ tomb bi ma waxoon maa ngi koy répété waat ci bay na xaw sëy na ji ma defoon sànq erreur yu bare bare bare bare bare tey am na synthèse ma leen joxoon sànq mooy quatre-vingt-quinze pour cent ci problème yi mi ngi am ci erreur bi ñu ngi ko defee ci labat waaye quatre-vingt-quinze erreur yooyu boo ko xoolee ca tànnin wa ca lañ defee erreur bii nag moom ci lañ gën a am sax yaqiin nag ndax bii dañ ci waxtaan ak ay nit yu bare bare bare yoo xam ni ñoom dañoo reconnaître seen bopp ni fii lañ defee erreur tomb bi moo ci gën a sensible moom nooy tànnee borom kër nooy tànnee soxna maanaam da nga ci yee sax xëy na ay tajaarib ak ay muqtatafaat yooyu gis la ak yooyu dégg waaye bii da ngay waxtaan ak ay nit ñu reconnaître ni erreur bii leen dal mi ngi leen dalee ci bi ñuy tànn parce que ni ñuy tànnee du noonu ba ca topp ci erreur yi mi ngi dal nit ki ci diisoo léeg-léeg nag nga gis koo xam ne erreur bi ci istixaara la ko dalee ndax istixaarawul yow suma mbokk mu góor mi jigéen ju rafet jeeg jigéen ju mel ni yeeg ju mel neeg yooyu nga xam ni mooy gën a yitteel nit ñi bum la yitteel donte ci la bum la yitteel donte ci la bum la yitteel mooy bum nekk sa kanam rek muur say bët waaye nag ci la mooy ku góor ki war naa fexe ba am nag ku fees bëtam li ngeen di wax naa ku luqi say bët loolu war nga koo am parce que kenn ku ci nekk nag la fees bëtam bokkut ak morom ma lay fees bëtam ndax mën ngaa gis genn jigéen mu fees sa bët fekk kii feesut bëtam kon ku ne yaa xam lay fees sa bët loola xëy na mën nga ko caa boole tënk la ndax tomb bii may wax nii tomb la boo xam ne maa ko dugal ci labat parce que damaa jàpp ni mënul ñàkk ci labat donte ki ñëw di waxtaan ci wàllu sëyit mën na koo junj comme wóoruñu ndax dana ko junjam déet mën nañ koo ishaara rek dem comme niñ junjee muharramaat jigéen joo xam ne ju am diine la jigéen ju am diine bokk na ca na ngay xamee am diineem boo xoolee colkaam gis nga ne mi ngi sol colk ak lislaam wax dëgg yàlla bi nga laajee seen waa kër gis nga ni danay woor woori sunna même bu dul chaque jour léeg-léeg mu def ko laajte nga ñu ne amaan na sax jullikat guddi la wala naafila kat la même bu ko nekku te du tey mu nekk nitub diine nag tamit laaj nga kenn mu ne ah ma ne diw de xam naa ko dëgg yàlla ku ku baax la moom bu déggee benn conférence buy wax ci sarxe wala nangam moom balaa am jàmm rek dafa sarxe wala keneen ku ne ah moom de ni mu ragalee yàlla moom de fekk fekk naa ko benn bis muy jàng quran mi ngi doon jooy wala moom de gis na maanaam yi ngeen xam rek yoo xam ne day mandargaal di wane ni kii am na diine loolu ak am solo mbokk yi nga jiital ko wallahi gis nga ki am diine problème nekkatul sa diggante ak moom waaye problème digganteem ak yàlla ndax diine ji mu am moo koy baare ba du sañ a jàdd yoon parce que yàlla la gën a sédd cër ci yow mii di borom këram waaye gis nga jigéen saa bu yow la gën a sédd cër ci yàlla du la sëyal xam nga ni ku nangulul yàlla du la nangu mu ta day na ak am solo jigéen ju nooy ak am solo jigéen du dëgër loolu nag léeg-léeg mu nekk mbind léeg-léeg mu nekk création jigéen ji mën naa am koo xam ne da ko da ko da ko fan moo xam ci famille la bokk sax na di defee na muy defee jigéen du dëgër de jigéen day nooy nepp jigéen du dëgër jigéen ju dëgër baaxul dëgër ci jëmm dëgër ci ay wax dëgër ci ay jëflante mbaa mu dëgër bopp mbaa lu mat dana dagg ji jigéen moytu am na jigéen joo xam ne lu mat mu dagg góor sax goo xam ne lu mat mu dagg sax jigéen ñi nañ ko moytu ñu moytu ñoom it damay faral di wax ni gis nga jigéen ju dëgër dootul safati jabar jëkkër lay saf waaw sarahatan maanaam yàlla dafa bind góor defal koy mustaas defal ko sikkim defal ko moo tax benn góor gu baax sama benn xarit benn ustaas nee na ndijaayam dafa yar sikkim bi ñu laaj ko lu tax nga yar sikkim mu ni moom du ko dindi parce que boo wati sikkim da ngay nuroog sa jabar te góor du nuroog jabaram mu ne moom loolu rek moo tax mu yar sikkim moom waaye wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg da ngay nuroog sa jabar maanaam yàlla bi muy tànn góor dafa jël góor utal ko sikkim utal ko mustaas génneeg buleem fii mu ni fàcc ci biti dëgëral ay përëgam ak ay poojam dëgëral aw yaramam xuural baatam gis nga melokaan wii góor góor bu ko jàdd rek da ngay jigéene da ngay jigéene yàlla jël jigéen defalu ko sikkim defalu ko mustaas xuuralul baatam nooyal yaramam nooyal kàddoom ah te naa ko sa kàddu gu nooy gi nag booy wax ak góor na nga ko sàmm yooyu yëpp mu def ko ba noppi ah jigéen ji ñëw naan day jéem a dëgër dëgër lu moom kon jigéen ji saa bu dëgëree rek day commencé góore moom moo tax jigéen du dëgër day nekk ku nooy nooy nepp jigéen dafay nooy jigéen joo xam ni bu dee gis nga ni gone moo la arrangé comme ñu ko ñenn ñi waxee na na nekk gone déedéet na nekk gone kenn du wax loolu parce que mën naa nekk magit nag dëgg la suwaa ba ca njëkk mooy mu nekk gone ndax xam ngeen ni gone yow lay njëkk a xam te ki ki la njëkk a xam kooku bokkul ak ki nga xam ne xam na keneen doog lay xam ñaareel bu dee gone xëy na tàggat ko mooy gën a yomb ñetteel bi gone moom njëmbat ñooyam njëmbat mu ndaw njëmbatu mango mu ndaw xam ngeen ni nga jëmbatal ko sa bopp wut man na ngay mën a jëlee bant jubbanti ko ba mu jub fii di waaje kii nga dagg ko gereefe ko defar ya nga ca man yëpp ci njëmbat mu ndaw nga ko gën a mën ci njëmbat mu mag xanaa njëmbat mag ma nga fekk mu nekk njëmbat mu njëmbat jubbanti ko benn waaye ca sonoon moom jubbanti ko nga doog a jot waaye bu dul loolu du sot kon mën a nekk gone mën a nekk mag xas ba na ngay tànnee xool lu fees sëbët it baax na ci xool lu fees sëbët comme dañ ne la ndaw si may nañ la nga xool ko waaye nag boo ko xasee takk nag fexeel ba yeneen jigéen yi ci mbedd yee sa yoon bu mu nekk ci ñoom del saji say xef ci ñoom jàpp naa ni fexe ba am ko fees sa bët nag baax na ci fees sa bët nag su ngeen gisee man fii du ma jëfandikoo ku taaru parce que sénégalais ni ñuy définiree taar ak lii taar bokkul te boo ne ku taaru li nga yaakaar ni yow mooy taar am na koo xam ne loola du taar ci moom kon baat bi gën a maandu mooy na fees say bët baat boobu moo gën a maan na fees sa bët ndax am na koo xam ne li nga yaakaar ni mooy taar du taar ca moom te effectivement noonu la amee ci góor ñi nag am na góor goo xam ne fi ne yow li nga définir gis nga ak boo taxawoon tey ni gars yi lan mooy taar xam naa ne di nga dégg fukki version ak juróom-ñaar waaye kenn ku ci nekk lam wax loolaay taar ca moom moo tax ku fees sa bët ba mu fees sa bët nag loola doy na mu nekk jigéen joo xam dëgërut bopp gis nga dëgër bopp baaxut ci góor baaxut ci jigéen waaye tuuti góor war na ko cee am maam tuuti la ci góor war a am waa loo xam ni góor a ci war a am tuuti moom bu ci jigéen am lu bari moom mbaa du nekk musiba gis nga jigéen ju dëgër bopp baaxul te góor ñaa ngi nii jàkkaarloo ak ma ñi ci yor ay soxna gis nga góor ñi bokk na ci li leen gën a naqari ci mariage yi mooy jigéen ju dëgër bopp gis nga jigéen ju dëgër bopp dafay gêner góor parce que dëgër bopp alaamatu kilifteef la te góor bëggul jigéen di wane kilifteefam te effectivement loolu am na ci droit parce que yàllaa ko jox kilifteef moom te dëgër bopp mandarga moo ne ni kii day wane ak kilifteef moo tax jigéen du dëgër bopp nooy nepp damay faral di wax ni jigéen joo xam ni dafa mokk nik wal nooy nik mooñ tàlli nip tali nangu gis nga yii saa boo ko dajee ci jigéen woyof ni mbaxana nangu ni dal gis nga ma waxana ni mu woyofee moo ko bàyyi fii gis nga daal ni mu nangoo moo tax bis ne ñu koy jogi di ko raatale ci sobe yeeg yépp muy nangu saraxatan nii la jigéen war a mel gis nga jigéen bu ni melee rek xamal ni sëykat la te loolu mën nga koo xam avant nga koy takk parce que ni muy jëflantee ci biir këram rek ca la nga ca xam ak la nga ca laajte ay mandarga la yu lay wan da ngay gis koo xam boo dikkee da nga koy fekk ci kër gi daanaka mooy mbaamu kër gi moom ba ñu dara ndeysaan loo ko sant mu def sawar lool nangu léeg-léeg nga arsalé ko sax mu sëgg rus noppi du tontonte ay kàddoom dëgërut diisut ah te dëgërut bopp nag surtout dëgërut bopp nag baat boobu ak am solo jigéen ju dëgër bopp baaxul ah yow kër gi bu kii dëgëree bopp kee dëgër bopp ñaari ñu dëgër bopp kër gi du jàkk du jàkk déedéet seetlul problème yi am yëpp da ngay seet ñaar ñu dëgër bopp ñooy daje da ngay gis góor gi dëgër bopp lool jigéen ji dëgër bopp lool te ñaar ñu dëgër bopp moom xam nga ni waxuma la kër gi du baax waaye duñ jur sax bopp borom bopp bu nooy ma mënuñu koo jur moom mi ngi noonu jigéen ji da nga fexe ba mu nekk toppkat jaamukatu yàlla comme ni ma ko waxoon sànq waaye mu nopp la nag mu nopp la buñ la ko nobal buñ la ko nobal waaye na la nopp xam ngeen lan mooy buñ la ko nobal ah mooy sa baay ne la tabaay nobal la ko sa baay ne la takkal diw takkal diw wala sa yaay wala sa na nga xam ñoom daal seen ay sentiment ngay demee déedéet góor ga newoon na takk leen ci ñi ngeen nopp balaa ñu leen a jox ñu ngeen nobut wala takk leen ci ñi ngeen nopp balaa ñu leen a jox ñiñ leen nobal xam nga sa frère mën naa faatu ci misaal ci kër gi waa kër gi daje nañ la jox soxnaam loolu mën naa nekk fekk ba nopp nga ko waaye nag waaye nag warul mën a nekk maanaam nañ la ko jox rek nga nangu fekk noboo ko déedéet moo tax mu leen takk leen ci ñi ngeen nopp balaa ñu leen a takkal ñi ñu leen nobal sa yaay sa baay sa frère sa nangam sa xarit bu la kenn nobal de déedéet eh gis naa kii kay nopp déedéet nopp ko rek yow waduut muy wut du ma wax bëgg ko nopp laay wax parce que baat boobu mooy wolof ndax bëgg nit mën naa bëgg baay mën naa bëgg yaay mën naa bëgg rakkam bu jigéen mën naa bëgg nanga waaye nopp nag moom koo fas yéenee sëyal rek te loolu la yàlla tudd mawadda la wax mawadda muy nobel nga xamante ni kii te te kaay ma xamal la ñaar nag gis nga jigéen ñi nañ bàyyi xel ni góor gu la nopp dana la yore jigéen ju la nopp dana la sëyal malgré problème yi lu mu bari bari bari bu la nobee sëyal la gis nga góor gi lu ngeen am amay problème ci sëy bi bu dee nopp na la dina la yore léeg-léeg nga gis ay problème yoo xam ne mi ngi bari loolu ngay rek lay dem ak a ñëw ba léegi te sëy bi du tas mukk parce que nobantee fi am xaw ma loolu ma wax xam ngeen ko la déet da ngay gis ko xam dëgg la ñi nga am problème tey ñu jàppante suba nga ñëwaat wax ci ginnaaw suba nga ñëwaat wax ci waaye ba léegi rek moom après buñ ko fakkastale ñu jàll mu continuer lu ko waral parce que góor gi da koo nopp soxna si da koo nopp mënuñoo teqali ko moo tax nopp lu ci am solo la fexeel ba jigéen ji mu nekk ku woyaf nekk ku woyaf jigéen warul diis jigéen warul diis dafa war a oyof gis nga diisaay diisaay googu xam nga lu muy jur day waral maanaam jigéen ji ci jëmmi boppam tàggat gi nga ko war a tàggat ba muy jaar ci say waaw jigéen ju oyof moo ko man jigéen ju oyofat mënu ko loolu nag am na koo xam mu juum nga corriger ko léegi loolu du doon dara ci problème nga mu juum mu jég jigéen bu oyofut du la mën a jéggalu léegi da ngay si problème am nga ni ndaw si jugal nga jéggalu ko mu jóg jox la cati baaraam fekk daa ñàkk pexe rek cati baaraam la lay jox nii da ngay xam ni kii jéggalu gi àggul sax ci xol bi parce que dafa oyofut damay faral di wax ni soxna yi sag am fulla ak sa am faayda bu ko sa jëkkër xamee rek baaxatu jigéen war naa am fulla war naa am faayda war naa fonk war naa yooyu yëpp waaye bu ko sa jëkkër xam na ko góor ñëpp yu nettali nag waaye sa jëkkër bu mu ko xam sa dëgër bopp sa am fulla sa faayda su sa bu ko sa jëkkër jëkkër xamee rek sa yëtu waaye mu nekk koo xamante ni oyof googu mooy waral yonent bi saa salaam nee na ma xam ngeen seen jigéen yi war a nekk àjjana nu ni mel mu ni jigéen joo xam ni yow ku góor ki yaa koy tooñ ba noppi ndaw si ñëw jéggalu la mooy aoud problème day am ci kër gi ku góor ki moo tooñ xanaa ma waroon dem ci soxna si jéggalu de soxna si ñëw ni ko man de fas yéene wu maa nelaw tey lu dul danga maa jéggal yow kay tooñu ma la man kay maa tooñoo maa la tooñ mu ni waa jéggal ma rek man maa tooñ maanaam ndaw su mën a sëy dëgg dëgg dëgg moom bu toor amee boppam la koy këpp waaye du ko këpp jëkkëram te it foofu ma am benn secret bu ma ci wax mooy gis nga góor te loolu na ko jigéen ñi dégg gis nga góor bu nekkee ak moom boo nekkee ak moom mu def ngandam maami erreur nga yëg ko ba pare noppi ci ba mu xam ni yëg nga ko nga noppi ci yow soxna si mu tooñ la ba war laa jéggalu nga njëkk koo jéggalu mu wax lu du dëgg ndax daa juum tey wax lu du dëgg donte bàkkaar la nga yëg ni wax na lu du dëgg ba pare nga naxasaale bàyyi mu jàll yaa ngi koy yeew yow soxna si gis nga yaa ngi koy yeew da ngay xëy xëy rek sawaay mu def la sëriñ yow yow ku góor ki def sëriñ ku jigéen ki de benn bis ngay xëy rek mu respecté la orma la jox la cër bëggatul la naqari fekk da nga koy yeew ak ay buum loolu nag jigéen ju mën a sëyee ko man waaye jigéen ñi mënuñu ko suñu jigéen ñi moom xam naa ñu baal ma ci kàddu wala ñu bari bokk ci suñu jigéen ñi bokk waaye am nañu ko man sax nag am nañu koy def kon fexeel yow ku góor ki nga tànn soxna su mel noonu mattandikul nag ab jàmbatkat jàmbatkat jigéen joo xam ne sum way foo ko fekk mi ngi jàmbat aw may dàll aw may nangam aw may nangam ni muy dundee ci biir këram jigéenu jàmbatukat baaxul jigéen ju bari jàmbat kooku daf lay déranger sa wàllu diine moytul bu baax jigéen joo xam ni foo ko fekk rek mooy buqi bët yi ci biti maanaam yëfi jàmbur lay xool rek moytul tamit jigéen ju bari wax jigéen ju bari wax baaxul bari wax sa baaxul ci góor faf waxuma la ji bari wax moom baaxul ci góor waaye jigéen dafa bon ci moom parce que li tax dafa bon ci moom mooy day wàññi sax ab taaram bari wax day wàññi taaru jigéen koo xam ne foo ko fekk ratatatatatatatatat loolu moom wax dëgg yàlla baaxut ci jigéen maanaam waxuñu la foo fekkee na ngay noppi nag waaye nay wax ji di di yem bokk na ci yi nga xam ne dañ koy tànnee nag borom kër yow suma mbokk mu jigéen mi góor góorlul ngalawaay yowit yàkkamteeg yu demee noonu bu mu la xëccaale ba nga sàggan ci ni ngay tànnee borom kër tànnin mi fexeel ba na nga am góor gu am diine diine ji nag moom jarul ma ciy jaarat ku jigéen ki moo ko góor ke moo koo xamante ni gis nga ko col kaam ma ngay sàmmoonteeg sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woor gis nga ko kenn du ko jiitu ci qiyaamu layl kenn du ko jiitu ci koor gi mi ngi jàng quran mi ngi dem ci muhaadaraat yi mi ngi nangam mi ngi nangam yooyu nga bàyyi ci xel waaye nag yooyu dina gën a leer ci tomb bii parce que léeg-léeg li ñuy jàpp ni mooy am diine fekk du loolu mooy am diine bokk na ci yi ngay tànn yow ku jigéen ki fexeel ba jigéen ji la takk góor gi la takk na la mën a yor nag ci wàllu wér gi yaram na mën a sëy ak yow parce que nga mën a am ay njaboot fegal sa bopp bànneex ci wàllu moyen tamit na amus tuut amus tuut nag ma wax lu leer nag balaa ñu jóge fii wax ni man naa wax ni ku amul xaalis waxuma loolu de amus tuut mooy na nga am looy xëy di am amus tuut mooy na nga am looy xëy di am gis nga waa ji su fekkonte ni saa bu xëyee gerte caaf lay jaay wala mburoom lay jaay wala lu mu mën a doon mën nga cay génne weccit loolu amus tuut la tudd sharia noonu lay jàppee amus tuut amus tuut nag soo gisee ma wax ko mooy xam nga faqr dafa métti ñàkk dafa métti du ñëpp ko mën a muñ te ñaareel bi la nga doon góorgóorloo soo yarul sa bopp ci wàllu dékku ñàkk gi rek mën na laa génnloo sax sa diine kon nag fexe am koo xam ne lu bon bon bon même bu ngeen doon lekk new xaw ma new ndax waa Dakar xam nañ comme déet sax même bu ngeen doon lekk new sax ngeen lekk new waaye na ngeen am lu ngeen lekk moom na ngeen am lu ngeen lekk daal loolu mooy amus tuut waaye na nga fexe ba moytandiku góor goo xam ne dafa naqari deret yenn naqari deret yu ëpp yi baaxul naqari deret ak dëgër bopp ci melokaanu góor la war a bokk waaye tuuti lañ koy jëng ci jël tuuti dafa am yoo jikko yoo xam ne faw góor am ko waaye tuuti la ci soxla am na yenn xeeti naqari deret yoo xam ne kenn du mën a nekk ak ñoom loolu tamit bàyyi ci xel wattandikul góor gu nay góor gu nay gis nga góor goo xam ne ngi nekk ak ay rakkam ci kër gi waaye du defal kenn dara te am na defalul kenn dara dara dara dara ba dara booloo jeex du la defal dara yowet ba dara booloo jeex maa la ko wax nit ki ni mu doon dundee rek noonu société bi société bi la kon wattandikul góor goo xam dafa nay wattandikul góor goo xam téyewut làmmiñam am na ci góor ñu ñoo xam ne téyewuñ seen làmmiñ booba nag ci jigéen la gën a bon nag ci jigéen la gën a bon ndax moom ay toj-toj lay wax waaye baaxut tamit ci góor fexeel nga am jëkkër joo xam ni ku mën a yenoon ay responsabilité la gis nga góor gu mënta yéen ay responsabilité bu ngeen am problème mu di la fase ku mënta yéen responsable bu ngeen am problème mu fase la parce que lu tax bopp bi attanut loolu moo tax dinaay faral di wax ne gis nga yorum soxna moo ko yor ay soxna laaj na moo tax ma ne la dëgër bopp jikko ju baax la góor war na ci am tuuti gis nga foo fekk góor gu yore ay soxna affaire ba ni cocc kenn déggu leen xam ne dëgër bopp maanaam dëgër bopp waxeewuma ko ci buntub li ngeen jàpp mooy jikko ju bon ja maanaam dafa am melokaan woo xam ne baat bi bu leen dégg baat bi nit ñi yow di ni nga ko dëgëre bopp mel ni dëgër bopp ah lëf yu bon la ñu naan déedéet aw melokaan la woo xam boo ci jëlee loo ci warta jëf day bon waaye boo ci jëlee la nga soxla day baax gis nga faw nga dëgër bopp bopp wow koŋ boo xam ni su ma waaye da ngay supporter ay masculiyaat léegi jigéen ji mën naa laaj waaw góor gu mën a yenu responsable noo koy xamee mën nga koo xam ci ay laajte yi ngay def ci ni muy dundee biir këram koo xam ne mi ngi ci biir këram bàyyam a nga fa yaayam ak ay frère moom jéemut dara góorut yettut defut dara daa wéeru rek ci seen kaw kooku xam nga ne du yenu dara waaye koo xam ne mi ngi jéem di kos-kosal dara léeg-léeg nga ñëw fekk ko muy defar mbaaru xarma léeg-léeg nga ñëw fekk ko ah muy muy jàppale jigéen ñi ci nangam léeg-léeg nga ñëw fekk ko sumuwaay bu defal jigéen ñi nangam léeg-léeg nga ñëw fekk ko muy jàppale yaayam maanaam di jël ay responsable ci kër gi donte bàyyam mi ngi dund loolu mandarga la mu lay wan ni kii xëy na ku mën a yenu responsabilité lay doon waaye nag ku góor keeg ku jigéen ki ñoom ñaar ñëpp ku nekk nag na jéem a xool kum tollool nag koo tollooli mbagg lu tax ma tuddee baat bi noonu ci wolof mooy xam ngeen ni bu ngeen jàng téere fiq yi léegi da ngay am ay baat yoo xam ne boo ko bëggee indi fii dañuy am problème ñun ndax boo nee kuf na nga takk sa nawle na nga takk nawle léegi bu ma ne woon nawle ak définition bi Sénégal di déggee nawle problème la ñuy indi waaye damay wax takkal koo tollooli mbagg koo tolloo li mbagg ku ne ku ne nag ku ne wax ngaa xam koo tolloo li mbagg nag wax dëgg yàlla waaw loolu nag dàqonte wut ak nag nit ki mën naa tagg takk kum tolloo wut mbagg ba noppi sëy ba ni cucc ndax yéen saa salaam xam ngeen ni ah xadijaa ko sutee sutee mbagg de bu dul woon lu bu wagi waaye nag yeneen bi nag am na lu mu ko sutee moom it kon léeg-léeg problème mën naa am ci sëy fekk li ko waral mooy bi ngay tànn da ngaa tànn ku la sut ci misaal su ma ko doon joxe pour mu leer ku góor ki nga xam dafa bëgg a takk soxna ah mel ni nun nga xam ni daanaka say nelaw doyut nga bëgg a seet koo xamante ni sum waay lim am ci ay ndombay tànk ak nangam ak nangam am na di fa fa muy xoolee doo fa xoolee li muy gis doo ko gis te diina jëmatut nag teg ci ndax mën na laa sut bu yeboo sax mu nekk premier ministre sax nag mën nga kaa takk de waaw l'islam may na loolu de ndax ndombay tànk yi xadija yoroon bi ko yent bi takk daanaka li ko premier ministre sutee ba amut sutu ko sax fa kon faw nga bàyyi xel ki ngay tollool mbagg nga xam di nga mën a méngoog moom ndax it wax dëgg yàlla boo ñëwee fekk jigéen joo xam ni sum waay bàyyam bo dafa am ba giijal ndaw si daanaka benn daal du ko sol ci benn weer balaa weer wee dem wut yeneen daal loolu la tàmm loolu la xam li muy lekk ak li ngay lekk bokkut ah foofu nag waxuma bu ca dugg de waaye waaj waaj ko de ndax problème bi du caagee ndaw si mooy bon gis nga ndaw si mën naa baax ragal yàlla fas yéene laa sëyal waaye problème mooy li nga koy def loolu dul man da ko dul man wax dëgg yàlla nit mënut a def lu mu mënut loolu nañ ci bàyyi xel yow koo xam ne su mu waay ay biem yépp këram néeg boobam la fa am am na armoire te amul jëkkër maanaam yéppam mat na kooku bala nga koy jël da nga koy waaj da nga koy jàngat diisoo ceeg ay expert ci wàllu sëy ñoom danañ la wan aw yoon wooy jaar waaw kay waaye boo ko defut ndaw si mën naa sëy si maanaam ndaw si même problème parce que ni même problème mooy moom day xam ni bëgg na waaye dafa mënut wax dëgg yàlla ku bëgg te mënoon nag dafa bàkkaar du kenn du la wax ne mënal far force nag moo tax buntu boobu ñu mata bàyyi xel la kon tom boobu ci gàttal daal waxtu waa ngi ñuy njatt ñu tënk ko kon ñu bàyyi xel ni ci góor buy tànn am na yu muy tànnee ku jigéen kadalika laal la mawdo yi ngeen fi am buntu bi dana gën a leer tom boobu juróomeel mooy al istixaara wal isticharatu maan qabla al xatawaat istixaara ak diisoo ñaar yi la jiitu balaa nga def benn jéego léegi da ngay gis benn waaye nga ne ko soo istixaara nga mu nii fàtte woon naa ko def nga musiba Abu Bakarin Siddiq nee na ma istixaara ci benn mbir dugg ca échec moo ma gënal ma bañ caa istixaara dugg ca réussir xool leen wax boobu mbokk mi ñu xóotee ma istixaara ci benn mbir ba pare échec moo ma gënal parce que day wane ni kon istixaara ji jàpp na moo tax ma échec ne bu bu bu jàppaloon du ma du ma échec damay réussir waaye moo gën a wóor ma bañ a istixaara réussir gis nga ba bañ a istixaara pare réussir da ngaa war a tiit ni est-ce que daa fekk daa tàmbalee nii rek waaye ci échec la booy istixaara it nag jaadu na ku góor ki ku jigéen ki kenn ku ne ci ñoom ku gis ku mu bëgg comme ku góor ki gis na ku jigéen ku mu bëgg wala ku jigéen ki gis na góor gu mu bëgg ku nekk bala ngay gaaral sa morom nga julli ñaari rakka ñaan yàlla ñaari rakka yooyu nag istixaara bi ci biti julli bi lépp luñ koy defee donte ku mel ni Ibn Taymiya neen boo ko defee ci biir julli wàññiwul dara alhamdulillah kon استخارة موي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودي حديث بيجي حديث لبو قد mu ngi ci seen téere xasnul muslim yeeg téere ñaan yeeg ila axir da nga ko ci fekk léegi boo ko defee ba noppi nga ñaan yàlla boo yegsee ci in kuntal an hadal amr mbir mii bu fekkee lu gën la ci man ah yow sunu borom man de damaa gis góor gii bëgg koo gaaral sama bopp ngir mu takk ma nga ñaan ndax loolu gën na ci yow wala déet ndaw sii dama koo gis bëgg koo labat pour takk ko mbokk mii kat dama ko bëgg a gaaral sama rakk wala sama jarbaat wala sama nangam nga istixaara ca loola xas ba la ngay istixaara istixaara nag sartunti ci boo istixaara da ngay gént gis dara déedéet maanaam da ngay istixaara bari gént yàlla wan la affaire bi déedéet loolu du ci sart waaye nag waxuñ ñiit mënta amit de loolu na nga ko bàyyi xel maanaam nekkul luñ ne da caa war a am amu ca norme yi amu ci benn xadis buy wax loolu amul waaye nag dàqonte wu ni mën naa istixaara par yàlla wan ko loolu ndax même boo istixaara wul yàlla mën naa baaxi ku aji gëm yàlla wan ko dara ci ne la woon waaye du ca sart daal maanaam bu ko bàyyi xel sax bu ñëwee nag moom jël ko léeg-léeg nag istixaara mën ngaa gént fekk li nga gént du istixaara jee ko waral de li nga gént mooy li nga bëgg rek dangis waa ji dafa bëgg ndaw si bëgg ndaw si ba daanaka sum waay bëggeel gi yegg fenn fi mu tëdd ko di gént ko jàpp ni saxaar jee nangu fekk déedéet la daloon la daloon Majnun Layla rek koy daal rek mooy nee na man su ma déggee ku ne Layla même bu ma wóoree du saa bos ba sax man kontaan naa mu ni yunaadi bi Layla gayriha fa ka annama ataara bi Layla tairan kaana fi sadri mu ni su ma déggee ku ne Layla sama fi dinañ tuxit bu ñëwee ma sa bos taxul ñuy wax mu ni ndokk waaye na tudd Layla rek waa jooju la ñu xam daa ñëw ba ci kaaba gi di di wër kaaba gi tawaaf dégg ku na kuy woo benn mbokkam naa ko eh laylaa rek mu daanu xam waa bëgg day toll foofu moo tax ñu ko doon wooye maj ñun laylaa dofub laylaa bi léeg-léeg góor day yàgg foofu ah góor day yàgg foofu jigéen it day yegg foofu nag loolu ngeen bàyyi ci xel ci buntu bëggante mbir mi day yegg foofu donte nag jaaduwut nag mu yegg foofu nag ndax genn bëgg gi moom nit ki yàlla moo la war a na safee noonu xam buñ ko tuddee rek nga yegg fa nga war a yegg yow waaye bëgg am na solo waaye dimension boobu moom bu kawe la beneen bi ci des mooy istixaara manis na koo baamtu timit nag mën ngaa istixaara tey bu subaa nga istixaara wala nga istixaara tey semaine bi sans départ mën nga istixaara ba ñetti yoon loolu wàññiwul dara donc xadis bi ci ñëw na ne istixaara lu mat juróom-ñaari yoon dafa daay wéru kon daal istixaara mooy ñaan boobu nga ñaan yàlla mu tànnal la léegi boo istixaara ba pare gis ay jàppandal wala ay buntu ubbeeku nga rafet njot ne xëy na daa gën gis ay bunt di tëju saa boo gis ay bunt yu tëju nag tekkiwul ne gënu man ngaa istixaara istixaara gi gën ay bunt jafe fekk nattu yàlla moo ñëw waaye istixaara bi gën na kon faw nga ànd ak istixaara ak istishaara muy diisoo diisoo nag lu am solo la waaye ñun ñii duñ ko def ñii duñ ko defee nan ko war a defee ñee duñ ko defee fañ ko war a defee ñun ñoo ñetti nit yi lañ ñun benn borom xam-xam nee na nit ñi ñetti nit lañ góor gu mat sëkk ak genn wàllu góor ak ku matut góor góor gu mat sëkk mooy koo xam ne xel mi dafa ñor xom te lum dugg rek diisoo ci genn wàllu góor mooy koo xam ne xel mi dafa ñor waaye mu daa doyloo xelam kooku genn wàllu góor la koo xam ni matoo góor matoo jigéen mooy koo xam ne sa xel mi neexu te doo diisoo dégg diine point mooy yëpp ci ñun nag ndax mbir mu nekk rek am na ku la ko gën a xam kon faw diisoo di am xoolal abi hurayra nee na gisuma ku gënoon a bari lu muy diisoo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu xew rek mu ni kaay diisoo man damay wax ne bu amoon kenn ku ñaan warta diisoo yonent bi lay doon ndax ku ñuy wax yu koy looy deel diisoo waaye yàlla mu ni ko saawirum fil amr del diisoo gaa yi lu ngeen ci xam hee léeg-léeg nga ne lu ngeen ci xam benn waay wax loo xam ni boo waxuloon lu ngeen ci xam musibaam ndax dina la wax loo xam ni xaajoo ba di ko xalaat léeg-léeg nga nar a def benn mbir diisoo ak am solo même bu dul ci buntu sëy sax diisoo dafa am solo mbokk yi léeg-léeg mën ngaa ñëw nga jàpp ni mbir mi nii lañ koy fajee nee du déedéet jamono yi passé dafa mel ni mbokk boo xam ni yàlla da ko nattoo xëy na ña mu nekkal sunna dese naa leer ci seen bopp waaye teewut moo leen yilif ñu déggal ko ñu def naa nga am masala mu ko gaar mu ne nii la koy def ma ne ko dee defal ne defal defal leneen safaan ba wa moo ñu nettali mu ne bi mu defee safaan ba ci la amee réussir lu ko waral parce que safaan ba dafa tombeek la ñee di bëgg te moom du ci am bàkkaar te moom moo leen war a meeb yu mel noonu yu mat a bàyyi xel maanaam maa nekk ci dëgg rek taxul lu la neex def déedéet istiqa istichaara nag du ku ne lañ koy defal diisoo ah diw sama xarit la xaaral ma dem ñu diisoo ah noonu la ñuy tànnee diisoo kaay déedéet dañ ci sopp mu nekk mag léeg-léeg donte du mag yépp lay doon danañ ci sopp mu nekk ku mën a wattu secret danañ ci sopp ku mu nekk ku am xel dañ ci sopp mu nekk borom xam-xam tamit yii yëpp ay xeet yi yëfaan loo xam bu ci dajee dana baax maam du ku nekk la ñuy diisool nangam damaa gaar mën ngaa diisoog kenn diisoog ñaar diisoog ba ñett booy diisoo nag léeg-léeg ñun dañuy bàyyi ba diisoo wees ñu doog a diisoo waa ji day ñëw ci ndaw si waxanteeg moom ay kàddu ba dem seen kër ba noppi doog lay wan ah oustaz damaa bëggoon kii di nangam nangam nga ne ko ah fu ngeen toll mu ne waa jot naa ko ko wax ba dem naa ci papaam ba pare ah man duma la wax dara lu ma ci xalaat dara duma la ko wax yow koo xamante ni su waay jàpp na la muy jàpp ba fas la muy fas ba noppi kooku boo nee ko baaxul fi ne du la déglu du la déglu de léeg-léeg dañuy yéex a istixa diisoo wala léeg-léeg nga gis koo xamante ni day diisoo ak yow waaye lam bëgg nga wax ko ko maanaam lam bëgg loolu la bëgg nga wax ko fekk déedéet diisoo doo indi say xalaat yow da ngay indi jëmmi masala mi rek déglu beneen bi ci des mooy diisoo ci jëmmi boppam dees na ko def ak góor dees na ko def ak jigéen mën ngaa tànn ñetti nit ñaar ñi nekk góor kenn ki nekk jigéen parce que am na lu jigéen di xam te góor du ko xam léeg-léeg it jigéen dana am solo bu diisoo amee ba noppi nga tànn koo xam ni yaakaar nañ ni am na ci xam-xam wala ci expérience sëy dara nga laaj ko ca ah ndaw si kat bëgg naa ko wax dëgg yàlla waxtaan nañ juboo nañ moom kat nangam nangam waaye nag dafa am feebaru sàngam te man nag bëgg naa ko léegi nag man lan nga may conseil xam nga loolu meneen masala la meneen masala la ndaw si bëgg nga ko bëgg na la istixaara nga yëf yi doy na di soo ngeen ba yëf yi jàppandi waaye nag ndaw si am na feebar bu mu la déclaré ni mi ngi ci moom te loolu lu am solo la dina ñëw léegi ci buntu diisoo mooy jigéen ji li ne ci moom ci ayib na ko wax góor gi li ne ci moom ci ayib na ko wax it nag na ragal yàlla yow mi ñuy diisoo nag bu ñu la laajee mbir moo xam ni ayib ma nga ca sañ nga kaa tudd ah sum waa ji de xam naa ni ku baax la waaye nag man de wax dëgg yàlla li ma jaaxal ci moom day dóor jigéen bi waaw day dóoraate moom waxuma dóor jigéen baaxut de waaye dóoraate ci boppam dëkkee dóoraate laa wax baaxut daa am góor ñoo xam daa mel dóoraate moom yoon tool lañ ko def soxna kenn du ko def comme gone ni ñuy defee gone de gone sax kenn du ko yaree noonu benn ñaar ñett rek nga dóor gone sax kenn loolu xataa la ci wàllu yar looloo yent bi waxoon abu jahm loo xam ci moom mu ne ah moom de wax dëgg yàlla moom yat bi mu du jug sa digg ginnaaw gis nga bu fekkee dañ laa laaj loo xam ci diw nag nga xamal ko safaan te jàpp ni safaan ba soo ko waxee mën naa yàq xelu ndaw si wala mu nekk luy siiw suturante moo gën ah bu dee da nga maa doyloo daal di ma laaj xam naa ci moom ayib joo xamante ni daal gënalu ma nga yem foofu bañ a tudd ayib ja loolu la borom xam njëkk a tànn moo gën su fekkee ndaw si dafa insisté wala ku góor ki insisté pour nga tudd ayib ba nga tudd ko te gàttal ko te bañ caa xóotal te it nag ŋàññi ko taxulaa jóg waaye wax ñun problème bi ñu am mooy léegi kenn ci ñun amut droit diisoo ñu wax la tey benn jigéen bu ñëwoon ci sama mbokk mi ni ko loo xam ci diw mu ni ko ah diw de xam naa ni moom wax dëgg yàlla dafa nay gis nga ko kee nay bu ko yëgee rek adaaba commencé naa jub te moom am na droit ci lim def loolu nañ ci bàyyi xel léegi na gis nit mere la mer mu yàgg nga xool nekkatee dan laa laajoon nga wax am moo tax nag foofu damay profité wax ni léegi ngeen ñàkk seen i droit na léegi ngeen ñàkk seeni xalaat yi doaat li ko waral mooy su fekkee da ngay ñëw diisoog diw loo xam ci nangam mu wax la ca lam xam au lieu que yow nga téye ko noppi jëfe la nga xam nga dem nga ni ah di laaj naa diw kay moo ne ma nangam ak nangam loolu baaxul loolu boo ko defee bu ëllëgee nit ki boo dikkee du la wax lam xam moo tax fii nu toll am na ñoo xam ne boo leen laajee loo xam ci diw dañ na la ah diine rek laa xam ci moom nopp fekk am na lu mu xam dala ko waxu lu waral loolu parce que ñoo def li tax ñu ñàkk leen te loolu war nañ koo bàyyi bu fekkee da ngaa laaj bañ ne la diw dafa am ayib sàngam ayib jooje yow yam ca jërul nga naan diwa ma ko wax jërul nga naan diw laa diisoon yamal fa nga war a yem waaye nag su fekkente da ngay diisoog nit ñi bàyyil xel nit ñi hé mbokk mi kay moom ni mu jàmbaaree mbokk mi waaw ku ñu wax daa jàmbaare maanaam baat bi fan la jóge yooyu baat bu muy nekk influence di nit ñi hé diw kay moom macha allah moom kay boo ko gisee nang muy waxi kaw nit ñi ni ñuy àttee du noonu gis nga Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa indi benn peesekaay bu doy waar ci ni ñuy peesee góor yi benn waaye dafa ñëw ni ko man day dama bëgg nga fal ma ma nekk gouverneur Omar ni ko man xawma la demal andi ko ku la xam mu ànd ak benn xaritam ñëw ni ko kii de moom sama xarit la benn bakkan la xam na ma Omar ni ko yow xam nga kii mu ni ko waaw waaw mu ni ko waaw kii mas ngeen a ànd tukki tukki nga xamante ni mën a muñu waajeeg ak taloreem ak ak yooyu yëpp ci nga koy xamee mu ne ko wax dëgg yàlla mosuñu ànd tukki tukki bu sori bi mas nga kaa dénk dërëm ak dinar franc yi xaalis mas nga kaa dénk xaalis jëflante ngeen ci wàllu xaalis nga xam ne ci la goree dig nit mën a feeñ goree di nga xam ne xaalis da koy gaaw a feeñal gis nga jikko goree di moom daanaka mi ngi jikko goree di daanaka moog almet ñoo yem bokk yem rek almet ak posan boobu ñu koy kos daanaka jikkoy goree di ak alal noonu lañ mel alal dafa gaaw lool ci feeñal ko jëflante ngeen ci wàllu alal mu ne ko wax dëgg yàlla jëflante wul ci wàllu alal Omar di ko man de yéemu naa ah kon yow da nga koo gis rek mu cëkkal tubayam buwal tu guddal sikkimam tey ñëw ci jàkka ji tey bari lu muy sujjóot loolu nga sukkandiku ca nga ne daa baax yow jógal fii xamoo ko mu ne dama seeti keneen ku la xam am na beneen riwaaye dafa wax waa ji ni ko waaw da ngeen a mas a jote nga xam ndax moom jote dana ko tax mu wax ba wax lu lu amul tuumaal nit déedéet da nga ko mës a dénk dara dénkaane wala ñeneen dénk ko dénkaane wala mu ne déedéet mu ne ko yow sum waay xambaadu li nga ko gis muy sujjóot rek moo la nax yow jógal fii yow xamoo waa ji kon yooyu nañ ci bàyyi xel mazhar bi dëgg la dañ koy rafetee njort waaye bul ca yam nag am na góor goo xamante ni sum waay teewut làmmiñam gii góor dafa nay tabewut gee góor day dóoraati gii góor daanaka xamul àqi jigéen gée góor sum waay def dara ci respons am am am xeba naqata la rek dara ci ay responsabilité du ko yenu loo wax mu ne ah loolu de sama yoon newu ci dafa ngeen lu mas responsable dina wax loolu góor goo xam ne loo xam ne mu ne sama yoon newu ci yu mel nii boo ci xam da nga koy leeral soo xamee lu baax tamit da nga wax ko ci moom xemem loo ko ah diw de moom li ma la mën a xamal mooy bu doon maa yore sama doom de bu ñëwoon ma may ko ko ndax naa nga wax critères yi nga xam ci moom ku jigéen kiit kadaalika mu def noonu waaye nag problème bi nag mooy su fekkee ndaw si moo ni la waxal ma say jikko yow loolu mën naa nekk de foofu tamit góor ñi nañ fa ragal yàlla de mbaa jigéen ji góor gi ni ko waxal ma say jikko laajiwuma kenn yow laay laaj ndax yow xam naa ni ku dëggu nga waxal ma say jikko sa jikko safaan yi nga xam yow yaa ko gën a xam wax ko jigéen ñi na ni na ni na ni wax loolu na ni faral di wax loolu booboo gën a wóor de maanaam góor gi nga xam ne jàpp nga ni ku ragal yàlla la téye ko foofu bu dee ko ragal yàlla nga xam ne kii du fen ne ko yow waxal ma li nga xam ci sa bopp yu baax yi moom laajuma la ko waaye li nga xam ci sa bopp ci yu safaan waxal ma ko ah su boobaa nag faw nga wax nag moom man daal suma problème wax dëgg yàlla nangam la léeg nga gis ku maanu nag ku ragal yàlla ko xam boo ko laajee mu wax ko lam xam ci moom ci boppam bu ko defee nag nga doog koy boole ak ñeneen ñi ngay laaj ala kulli xaal kon diisoo mi ngi noonu su ko defee di istixaara mooy njëkk diisoo topp ci nga doog a départ nag pour xam fa nga jëm nuqta bu juróom-benneel bi mooy atteb xool ak i dayoom fan la xool di yem dafa mel ni suñu waxtu jege si na aywa juróom-benneel bi mooy xablal axir mooy xool borom xam-xam yi lislaam yi dëppoo nañ ci ni ku jigéen ki ngay labat xar kanamam ak i loxoom mën nga koo xool même bu xool ba juróon bànneex sax doo ci am bàkkaar bu dee takk moo la tax a jóg donte nag am na ñu ni déedéet bu naree jur bànneex waaye loolu wérul li wér mais même bu fekkoon te de xool ba bànneex judd na ci it la la ngay xool la nga war a xool ngay xool yow parce que islam moo la may loolu. ànd ak wuute nag am ci ndax dagan na nga xool ci ndaw si lu ëpp xar kanam ak i loxo lan moo tax ñuy maye xool gi ngir nga mën a amuk dal. xool ba li ngay takk ndax bëgg nga ko fees na say bët wala déet aka ci am solo parce que day waral dina la yor de yenn saa salaam dañuy waaja dañu ko may nañ ma soxna ci wàllan saar yi mu ne ko gis nga ko mu ne ko déere mu ne ko demal nga xool ko ñoom wàllan saar seen bët yi kat dafa xaw a tuuti te am na koo xamante ni ma bëggul loolu gis nga kon da nga koy xool ak yeneen yeneen bi saa salaam bi ndaw si dikkee ni ko may naa la sama bopp dafa siggi xool ko loolu laa leen waxoon sànq dafa siggi xool ko ba pare doog a sëggaat tontuwut dafa noppi rek léegi mu des nag ndax xar kanam ak i loxo rek moo dagan wala dagan na nga xool lu ëpp loolu borom xam-xam yi juyoo nañ ci masala mi ba wax ci ay wax wax yooyu danaa la ko nettali dooloo indi ar rajih juyoo ya bokk na ci am nañu ni xar kanam ak i loxo rek ca nga yem doo ko weesu loolu lu bare bari ci borom xam jamhurul ulama daanaka loolu la ñu wax xar kanam ak i loxo xar kanam nga xam ca taar ay loxo nga xam ca nooyaay yaram weeg nu mel daa xees xeesut dafa siti siti wut dafa nangam nga yem ca waaw waaw am na waaw damaa wax rek feebar la mën naa daal nit fekk góor gi mën na ko xool fekk bëgg na ko noonu de mën naa xool nit fekk bëgg nga ko noonu de ku góor ki ku jigéen ki mën na laa xool fekk bëgg na la noonu de gis nga li tax ma ne la mawasin nit yi bokkuñu mën ngaa tànn ba ñu lii man topp bokku ci samay choix fekk am na koo xam ne moom daaw ba ren loolu lay wër waaw moo tax nit ñi moom bokkuñu ndax yéen sa salam ba mu sëggaatee ndax xëy na ndaw si xëy ma ko am na benn waay bu taxaw mu ne ko boo ko bëggul rek maa ngi taxaw boo ko bëggul rek maa ngi taxaw yeneen tamit ne ko loo am mu ne ko tus dara maa ngi ni aw ma dara dara mu ne ko demal wuti dara loo am même bu dee ak ab jaara sax wala nangam lam sax andi ko gis nga am na ci borom xam-xam yi ñu wax loolu alxanafiya ñenn ci ñoom almalikiya alshafiiya te lenn la ci waxu alxanabila ñu ni xar kanam daal boo ca xoolee di nga xam taar wala lu ko nuru ay loxo di nga xam nooyaayu yaram wala yu ci des wala melokaan ila axiri ndax moo ëpp lu muy feeñ am na ñu ni daal li ëpp lu muy feeñ ci nit bu nekkee ci këram ay përëgam baatam ak i tànkam yooya bu lu ca feeñ mën nga koo gis mën ngaa xool loola maanaam kon ña wax loola mooy kon ndaw si bu noonu mu daay ko gàtt gàtt leen ci ay yére yaramam di feeñ lu dul awra nag ñu ne mën naa nekk nga xool te loolu moo gën a fës ci mazhabu xanaabila ahmad ibnu hanbal la ko waral mooy yonent bi saa sallam dafa maye ba maye nga xool ndaw si te fekk ndaw si gisu la kon la muy wane mooy kala may loola kon moo lay wane am na yuñ soxla ci yaram yoo xam ne mën nga koo xool ñetteelu kuréel bi ci borom xam-xam yi ñu ni lépp loo bëgg a xool lu dul awra rek mën nga koo xool lépp loo bëgg a xool te loolu taxal nañ ko jëlee ko ci imamul awzaa yi loo bëgg a xool lu dul awra rek mën nga koo xool ay mbaggam baatam ay përëgam dënnam ay tànkam mën ngaa xool am na ñeneen ñu xam ni ñoom lan wax nag daa ëpp mooy ngiram daawud al-zahiri ak ibn hazm la chaque wax jooju moom dafa ëpp ci ñenn ñi loolu te ëpp ci ñi ci des nag mooy dañuy wax ni daal ndaw si mën ngaa xool lépp yaramam maadaama da ngaa bëgg a takk loola moom dafa mënul nekk parce que ndaw si fan ngay xoolee lépp yaram fan nga koy loo xam yaayam sax daanaka xawu koo man nga di ko mën yow wala baayam loolu mënul nekk te loolu am na riwaaya boo xam ne toxal nañ ko ci ahmad mu xaw a nuru lu mel noona donte doonu ko nag cent pour cent seen tegtal mooy yentu leen undur ilayha xoolal léegi foofu borom xam-xam yi juyoo googu ñu juyoo bi nu ko seetloo ba ci biir boole ko tegtal yi nga xam ni moo rot ci sunna li nu gis bu dee wàllu dagan xar kanama ki loxo daal dagan na nit ki xool ko ci li gën a tuuti waaye bu fekkee ndaw si am nga occasion man koo xoolal lu ëpp loola soo ko defee doo am bàkkaar waaye doo ni ko summeekul ma xool masala mi ñoom lii lañ ci gis mooy li rajo te loolu nag am nay tegtal yu dëgër nag yuñ ko amal insha allah yemal ci sa xar kanam nga ak ay loxoom boo amee occasion boo ko mën a xoolee boo xam ni bu fekkoon te ni da doon romb tey te fekk labatoo dañ naan la sajal gëmmal sa bët yi kooku mën naa ko joxeel misaal bu fekkoon da ngaa ñëw ci kër ndaw si fekk yëgul ni yaa ngi fii wala ngay dugg si yem ci comme këri Sénégal yi ni mel fekk mi ngi teraxlaayu teraxlaayu ku génne ca war a di sang nga xam ne lañ war a nëbb nëbb na ko waaye nag comme ci biir këram ne am na yum sañ suba boo ko gisee sañ ngaa xool kenn du la ko tey benn ñaareelu misaal mooy bu comme xam ngeen ni kër léeg-léeg mën nga gis këru ndaw terrasse nekk ci kawam tey boo sëpp woon seen jigéen dañ naan sajal sa xef yi waaye tey boo sëpp woon seen jigéen ji nga xam ni moom ngay bëgg mu sol loo xam ne xëy na moo xam muuraay gu gàtt la moo xam sax am na ñu ne sax xaasiratal rasi même bu mu réeku woon même bu mu réeku woon waxuma nga ni ko mu réekul waxuma moom mu la koy defal waaye dama ne benn saxaaba daa yéeg ci kaw garab seen ndaw sim bëgg muy romb di rooti mu di ko xool am ku ko gis ni ko yow saxaaba bu doy ni yow bokk ci ni yonent bi yar nangam tararararara ba yeggal mu ni ko nii lan nu ko digalee nag nii leen ñu ko digalee mu ne ko luy tegtal mu ne yéen sasam nee na soo ma nee fexe ba gis ca moom lu la xemem loo pour nga takk ko def ko kon boo ko gisoon tey fekk muuruut mbaa mi ngi muur lu gàtt baat baa ngi feeñ dënn baa ngi feeñ loxo yi amaana mi ngi sol benn siletment parce que dafa nekkoon ci biir këram ndax am na jigéen lu ñu koy may ci biir këram mu sol siletment nga xam boo ko xoolan tey da ngaa waroon a gëmm say bët dañ naan la xoolal waaw loolu moom may nañ la ko loolu nag ay borom yi xam-xam yu bare bare bare lëngal nañ ko te loolu lañ gis ni mooy li gën a dëgër jamaan bayn al adilla wa illa nañ yem ci xar kanam ak i loxo rek loolu dafa tuuti ba mu ëpp donte nag ndaw si boo dikkee moom dooni ko summeekul ma xool loolu moom kenn du ko def waaye nag ndaw si ci boppam bu benn waay dikkoon di ko labat ñu waxantey kàddu ci misaal maam yoon wi laay joxe nii maanaam damay joxe aw yoon nga xam ne jigéen ji buy jëfe li ma waxit da koy jëfe ci jëfe bu mucc ayib waa ji ñëw na di la labat si ngeen waxantey kàddu mu delluwaat war a delsi moo xam jokko ngeen téléphone moo xam jokkoowu leen ila axiri mbir mi yegg na ci say wayjur ba am nga confiance ci war na laa mën a takk bu doon kuy muurab jilbaab mën na dindi jilbaab ba muur muuraay bu gàtt waaw may nañ ko même bu waa ji toogee yére yam soloon yegg si na fii moom ndaw si bu ko neexoon mu sol loo xam du yegg si fii ku góor ki ne du ko ko digal nag waaye jigéen ci mën na koo def bu ko defutit nag doone ko def ko nag boo amul benn occasion ci lañ tere woon islam dala koy may lañ tere woon mooy jigéen xoolal la ko ñëw wax la nu mel loolu dafa xaram ci l'islam waaye bu fekkente ni bunt bii nga toll l'islam dala koy may loolu tamit ñu bàyyi ci xel masala moom loolu lañ ci gis muy rajih wallahu aalam bisawab amma nuqtatu al axira bu mujj bi mooy yan relation nag moo war a dox ci diggante ñaar ñiy labat labat ginnaaw buñ ko xamee xam ki ñuy labat ndaw si fan lañ ci def ak moom fi ñu war a jaar ak waxante kàddu yi ban diir la war a am ci guddaay amut àpp ci lislaam ban diir la war a am ci gàttaay amut àpp ci lislaam donte dañ naan nu mu gën a gaaw gën a baax boobu leer beneen bi ci des mooy bu fekkee da ngaa xool ndaw si ba sippili ko waaye jàpp nga ni benn yoon bii doyu la ëllëg boo amaatee occasion boo xoolee kenn du la ko tere muy xool xoolaat kenn du la ko tere ndaw si it nag dagan na mu xool ku góor ki borom xam-xam yi dañ ñuy waaw lan moo tax ñu nekk fi naan jigéen lii lañ war a xool ci moom lii lañ war a xool ci moom te góor kenn waxul ci moom loolu ñu ne parce que góor dañuy fàng fàngaaral moom góor dañuy fàng fàngaaral ku ni fàng fàngaaral kay jarul ñu nan ko yow nan la xoolee fii ak nan la xoolee fa ko ko xool ko gën a yomb su fekkee ku góor ki daa ñëw gaaral la boppam nga sigi xool ko doyu la wala yow ndaw si gaaral la boppam te fekk doyu la su boobaa bëgguma la kenn du ko wax loolu dof rek ko koy wax bëgguma la loolu dof dof dof dëgg moo koy wax kenn du ko wax ah man de wax dëgg yàlla xam naa ne dama am benn ngant xam naa ngant bu xaw a xóot la nag moom mu ne su koo leeral ndax mbirum lefin xaw na xasaale rek jàll parce que loolu mooy may nit ki xolam féex waaye bëgguma la kenn du ko wax nit ah man di jot naa ci waxtaan ak sama famille waaye daal gis naa ne am naa ngànt ak biir famille boo xam ni daal naxasaale wax ji rek daal di bàyyi ku jigéen kiit mën a def loolu waaye bëgguma la ak wala ngay wax lana gàntal fekk ci ndaw si la ayib dina ci ndaw si la loolu kenn du ko def imam ibnu xajar nee na kon su mënta ñàkk nga delloo da ngay noppi wala nga wax loo xamante ni maanaam wax ju xaw a mel noonu la ndax dagan na ñuy toog di waxtaan waaw bu fekkee jataay ya ëppal amu ca bari amu ca ndax dagan na ñuy jokkoo téléphone waaw bu melul ni li ma gis ndakaaru bu melul ni li ma gis ndakaaru Dakar moom li ma fi gis mooy da ngay gis koo xamante ni sum waay balaa commencé laba sax ndaw si lay njëkk jëndal portable utal ko piisu piisu sigo sama waay moo njëkkoon waaw te kii nekkagul sa waay de kii moom nekkagul sa waay wax dëgg yàlla balaa nekk sa waay dañu ko may wala nga wutal ko piisub expérience ngeen di jokkoo di waxante loolu daganut ci l'islam parce que li ko waral mooy buntu bañ doon tëj yaa ngi koy tijj bii dafa direct bii indirect buntu bañ doon tëj mooy bu leen wéet bu leen def nangam ak nangam bu leen waxante ay wax yu naxa sa kandang tey seetlul ñi koy def ñëpp wax yi naxa sa kandang la ñuy wax wax joo xam ni amul bopp amul geen amul fulla amul fayda daanaka daal yaa ngi bànneexu ci kàddu doo muy bànneexu sa kàddu kon buntu boobu mbokk yi nañ ko bàyyi xel waxuñu ne ndaw si bul ko woo téléphone comme ni ko ñenn ñi borom xam-xam waxee déedéet waaye wax ji na nekk waxi fulla wala waxi faayda te it na gàtt na néew say tànk jarul mu fay bari ku miin say tànk yàpp la ku miin say kàddu yàpp la ñaar yooyu faw nga bàyyi ci xel léegi nag gis naa lu gën a ëpp loolu sax léegi sax jigéen ñooy déplacé wu dem di fekk ñu góor ñi te loolu moom waxuma la sax dafa rusul sax muy am ci ñuy dund diine déedéet wa illa relation yi nga gis koo xam day jàng daa mel ni man di jàng kee mel ni kee di jàng moom it pareegoo pareegul nga jox ko sa kàddu mu jox la kàddoom mu toog di la xaar nga toog di ko xaar loolu moom ngeen baal ma ci kàddu gi li wolof yi tuddee doxaan loolu la te loolu xam ngeen daganu ci lislaam joxantey kàddu mën naa nekk waaye day am ay surut waaye du mel ni nii da ngay ñëw benn soxna nga ne ko ma ne dama lay lawal mu ne man de pareegu ma moo taxit du gaaw a pare man kat daa am ko fi bàyyi kàddoom kàddu goo xam daawaataati jéeg lañ ko fi bàyyi woon te gis nga bàyyi kàddu lu wóor a déngoog na gis nga bàyyi kàddu lu wóor a déngoog góor gi koy def def na lu wóorut jigéen ci def na lu wóorut li ko waral mooy gis nga yàlla kama annahu yuqallibu layla wa nahaar wa yuqallibu al afida wa nuqallibu afidatakum wa absaarakum gis nga xol day suppeeku bët day suppeeku gis nga mën ngaa gis ndaw si tey nga miir mu fëq sa bët nga waxante nga ay kàddu ba jàpp ni fi ne ndakaaru ba ndakaaru ndaj moom kii rek a fi nekk nga jox ko kàddu ba noppi wëlbati ko gisaat leneen affaire yi wóorut de te boo ko bàyyee da ngaa war te xam ngeen ni war moom kenn du ko def lu dul da nga gis aaxiba ba jigéen ji joxante kàddu ko góor gi dem ba ci biir gis kenn ku ko gën a xaw xaw xaw a gën a këfin mu far bëgg a bëgg a daal di dekk te loolu mi ngi am te li ko waral mooy joxante kàddu gi joxante kàddu gaa ngi waral relation yi di am wootan téléphone gi message ante geeg ah ila axirihi yooye moom daganut ci lislaam jigéenu jàmbur góoru jàmbur fala taqdaana bilqawli fa yatma alladi fi qalbi marad wa qul na qawlan maarufan fala taqdaana bilqawli mooy luy waral mu bànneexu sa kàddu bu mu am wa qul na qawlan maarufan mooy na gàtt bari njariñ na gàtt bari njariñ sa discours bu mu gudd waaye nga di fa dem mu di la dem waa kër gi yëpp xam la su mooy ngay maye fii ay tàngalak di di indil xale yi ay kadoog ku ne nga bëgg koo xam seeti bàcc yooyu ci lislaam dama déedéet ful la ngay dox buñ la ko doxloo ful la ngay wax bu jaree nga wax ko ñu jéem a dox sëy bi léegi nag ndax ñaari weer la ñetti weer ñeenti weer islam moom lu mu gën a gaaw daal la ñuy wax moo gën a baax waaye nag guddaay bi it nag gënu ca ndax day jur fitna ndax dinañ mën a wéet ñoom ñaar déedéet même boo koy labat du ngeen wéet sooy dem àndal ak sab xarit te même boo àndeeg sab xarit ba léegi wéet am na bàyyi leen ci xel tamit même boo àndeeg sab xarit ba léegi wéet am na faw ndaw si dëgg ànd ak sab xarit dafa gën a wóor waaye nag ndaw si faw mu am koj armalam bu ñëw toog moom it mbaa boog ngeen entré seen bopp ca digg ëtt ba nga xam ne ku ñëw gis leen loolu wéet amu ci wala saal boo xamante ni mi ku romb mi ngi gis mu ñëpp ngi jaabante wéet amu ci way demee noonu loolu tamit ñu bàyyi ci xel ndax ndaw si dana dagan mu toilettu parce que daa am ku koy labat si waaw dégg diine point net waaw dana dagan ci lislaam toilette bu yam nag waxuma ay pastel ak maquillage yooyu ñuy def déet waxuma loolu de mel ni sol lu rafet yére bu rafet ndaw si doon jilbaab di génn waa ji ni ko maa ngi ñëw mu dindi jilbaab bi muuroo muuraay bu gàtt sol ab ndoketam wala marinière am wala ila axiri ci li ngeen xam ci Sénégal mu sol ko dara newu ci ah waaw ku góor gi kat day day day defaru ba rafet doog a ñëw di gars yi bu ñuy ñëw gars yi bu ñuy ñëw li ñuy wane léeg-léeg du bokk ak li am de waaw da ngay nekk waa joo xamante ni su waay amoo oto ba noppi ngay dem di wut otom jàmbur di yóbbu chaque jour ngir langali caabi defe ne yaa ko moom yooyu yëpp jëru tamane da ngay def la nga wane la simple rek léegi nag lan mooy tegtal bi am na benn jigéen bu ñuy wax subayat al aslamiya te xadis mi ngi ci buxaari xadis boobu ndaw si ba nga xamante ni eddaam daa jeex fekk borom këram daa faatu woon dafa tusngalu woon fuddanu benn riwaaya dani dafa tus nga lu fuddandu di waajal ña ko doon labat si te xadis mi ngi ci buxaari kon dagan na ndaw si fuddanu dagan na mu sol lu rafet toog ca këram mel na jigéen war a mel ci biir këram loo xam ne boo doon génn dañaan ah lii kat bu mu génn moom ndax loolu ngay defal kii labat si moom bu doon génn doo ko def te na yemamaay nag na yemamaay ndax xamoo ndax yëf yi dana yàqoom déet mën naa xam ci yow dara pare du la takk ndax dagan na mayente ay kado waaw waaw dagan na waaye mu yem ca ne ko lislaam bëggee te bañ a ëpp ndax kado mayante da ngeen di bëggante haadu taxaabu mayante di ngeen bëggante ah cadeau yoo xam day yem bañ a indi fitna waxuma la portable nag ndax portable moom lim indi mooy li ma wax léegi waaw donte nag bu ma nee yem nag bu ma nee bañ a def lay liggéeyam baax na bu fekkee am nga lenn loo ko def tisu boo ko jëndal ndaw si da tabaski da doon jub si fekk yaa ngi koy bëgg nga jëndal ko tisu loolu dara newu ci waaye nag nga fexe ba mu nekk ngir yàlla rek loolu pour mu nekk lu dul ngir yàlla yomb na torop torop nag torop ndax li firnde bi lay wan ni nekkul ngir yàlla rek mooy tey bu fekkoonte ni préparé nga ko ba teg ko sa kër ca ngoon nga ndaw si woola daañu ne ah man ne xool naa waaye damay joxe ngaan tisu boobu moom du demati moom loolu mandargal ba lay wan ni ngir yàlla la nekkatul ngir yàlla waaye bu doon ngir yàlla sa mbokkum jullit bëgg nga ko ngir yàlla da nga ko koy jox incha allah yàlla moo taxoon ngay jub léegi nag man ngaa am yàlla amaale leneen la yelwaan kat bi doon wax da ngay am tiyaaba amaale tuyu yóbbaale maam mbir mi da ngay am tiyaaba nag amaale cay intérêt kon mën nañoo tabaadul ay hadaya ndaw si mën naa may ko góor ki kado dara newu ci waaw ndaw si ràbb na benn mbaxana gis na ne mbaxana mu rafet na ma may la ko waaw nga sol ko loolu dara newu ci gis nay dàll yuy jaay mu jëndal la ko fekk toujours rek ala xududi ma shara foofu lañ koy tënk mooy na bañ a jalgati jàngalay lislaam ci gàttal daal su ma ko doon wax damay wax ni kon labat ci boppam mi ngi noonu ginnaaw bu ñu xamee ki ñu war a labat ak niñ ko war a labatee ak diir beeg kan nga ko war a labat ak relation yi war a dox seen diggante léegi nag ak tànnin waag ñan nga war a tànn ak yu demee noonu yooyu ñu bàyyi ci xel xam ni yii day bépp góor bu ko sàmmonteel bañ may la soxna yàlla mën na lay defal tawfiq nga am jàmm lii ma doon wax nag beneen labat bu ngeen gis bu dut bii mooy bi i xew ci jamono loolu moom lislaam da koy tere nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira lu ci jub ci masala wala ay kàddu loola ci mbaax ak sunu borom la ak yërmandeem falawul hamdu wal minna lu dëng ci kàddu wala masala ci ñun la ñu ngi koy jéggal sunu borom wal ilmu inda allahi taala وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
mu fayal ñu ustaad ñang bay waxtaan bu am solo bi def ko fi misaani xasanaati yi may ñu dégg ak topp ginnaaw loolu ñaareelu xaaju waxtaan yi moo ci topp muy laajee tontu yi laaj yi nag maanaam yu bëri yu mbokk yi laaj daanaka tayib insha allah alhamdulillah laaj yi ci Maodo naam tayib insha allah tayib donc ñu bàyyi xel ci laaj yi bañ a génn sujet bi ñu doon wax léegi laaj yi xam naa yu bëri oustaz daanaka tontu na ko ci biir wax ji moo tax suñ ko posé itam su fekkee lu ñëwoon la ci wax ji maanaam tamurru alayhi murra al-kiram insha allah kii dafa ne dafa dégg ñuy wax ne labat warul dépasser six mois nee na lan la ñuy wax ñaari mbokk bu góor ak bu jigéen ñoo xamante ne dañoo nekk ñoom ñaar te parent wu ku jigéen ki duñ may dañoo ne duñu mayee seen doom tànk àggul ci yenn niveau yi ci njàngam te ku góor ke ku jigéen ki bëgguñoo tàgg tàggoo nee na lan lan ngay wax ñoom.
ala kulli xaal labat war ko paas six mois boobu tënk moom gisuma ko ci sharia donte li ma jàpp bu jàmm doom dee xew waru faa yore bu jàmm rek dee xew boobu wenn gàllankoor labat warul mën naa juróom benn weer bu fekkee benn gàllankoor amul bëgg nga ko bëgg na la kilifa yaa ngi fi amul lenn gàllankoor su boobaa warul fa mën a yegg donte nag bu fa yeggoon ngir gàllankoor moo ko waral su boobaa dañ naan gàllankoor ko waral waaye bu ko gàllankoor waral dañ naan yéene yi topp seen bànneex wallahu a'lam jigéen ji nga xam ne dafa bëgganteeg ku góor yaayam ni ko duñ la ko may ndax day jàng day topp ay étudiant wala baayam loolu wala ku góor ki looloo bari Ndakaaru na te looloo bari ci suma mbokk yaa ngi fekk doon ci bàyyi xel lii may bëgg a wax maa ngi koy waxee ci buntab xam ak gis xam ak gis xam gi mooy lii mooy àttab lislaam gis gi mooy li ñuy gis kat wax dëgg yàlla jaaduwut ku jigéen ki da nga koo bëgg bu fekkee ay waajuram nee nañ duñ la ko may ngir am na illa buñ bul fàtte ne am nañ ca droit nag moo jur doomam moo xam la tax mu wax lu mu wax sikku la ci diini sikku la ci nangam am na lu tax mu wax lam am na ci droit parce que mooy kilifaam loolu bàyyi ci xel doom ji fii fii ak juróo ko rek bul ni diw amul droit ci li muy def su boobaa kenn ku ci nekk na def la yàlla waxoon wa yéen tafaraxa yox ne làkkul la min saati ku nekk na seeti weneen wërsëgam ndax génn góor néew fi bu deewoon nga xam ne xel moom dong néew fi bu fekkee mbëgg àgg na foo xam ni ku góor ki xëy na mënta bàyyi ku jigéen ki na takk keneen bu kooka jekkoo mu takkaat ko ndax góor daa war a bare ay soxna bu dee mën na ko su fekkee ku jigéen ki aman na moom bëggam xëy na yegg na ci waa ji foo xam ni jàpp na ni mënu ko bëggee keneen ca lam gis relation yi doxoon seen diggante yépp moom nañ ko coupé ba mu des bëggoon naa la mu jeex loolu mën naa nekk tey bu dee buntu boobu mën naa nekk te loolu lu jafe la nag ndax bëggoon naa la moom léeg-léeg di ko fàttaliku day yomb lool maanaam bëggoon naa la mooy xam nga ni xel kii bëgg na la xam nga ni bëgg nga ko waaye nag seequ leen ay demlanteeg dikkalanteeg messageanteeg wootanteeg ila axiri yooya moom mbaa bu amee lu néew la loo xam ne benn fitna du ca juddoo ba keroog lay am di am donte nag ku ko def da nga koy def ngir da ngaa ñàkk pexe waaye wóoru ndax xol yi day soppeeku kon daal ci gàttal képp koo xam dafa am gàllankoor mu seeti ka amul gàllankoor mu ànd ak moom loola mooy la gën walis yi nga xam ne ñu ngi koy def wallahu aalam
kii dafay laaj nee na naa tudd ci suñu waxtaan ne dagan na ci ku jigéen gi mu feeñal taaram tuuti ngir ki koy seet si nee na naka lay def ak wax yàlla subhanahu wa taala wala génn si wa taala na ilaa ko awlatee
borom xam-xami lislaam yi dañuy wax ni borom bi subhanahu wa taala tënk yi mu tënk aaye ci alquran boo xoolee kon après su ma tontoo ci loolu dama naan ko mayit kon nan la ñuy defa qul lil muminat yaghdunna min absarihinna aaya jooju nuñ koy def kon qul lil muminina yaghuddu min absarihim waxal góor ñi nañ saji seen xebi te waajaa ngi nii jàkkaarloo ak ndaw si nu ñuy def aaya jooju niñ koy def mooy sarixul quran day dimbalanteeg saxiixu sunna aaya alquran day ñëw wax nangam hadis moo koy tekki am na buntu yoo xam ni dagan ga ak araam ga am na bunt yun ca maye jigéen ji eddaw bu ko kenn labat ba mu des nga junj ko sunna maye na loolu bul feeñal sa taar lu dul sa jëkkër waaw waaye nag am na ca lenn waxuma feeñalal taar lépp ci binde am na ca lenn loo xam ni mën naa feeñ ci ki lay labat muuru nga muuraay gu gàtt mooy muuraayu biir kër sol nga sa yére bu rafet te jot te jot say cër dara feeñu ca sa yére yee jot na nga sol yére bu rafet nangam nga xam ne gisu ca lenn lu ñu naan lii dafa araama xool dëgg la soo doon génn na nga war a génne ak ni nga mel ci biir kër bokkut kon daal ni ngay mel ci biir kër nenn na lislaam mayee na kii labat mu xool ko loolu nag sun naa koy may wallahu aalam
soxna su jëkkëram faatu kañ lay tàmbali ay def mu nga commencé compter ay def
ah kañ lay tàmbale xanaa bu waaja faatoo waaw bu waaja faatoo ca lay tàmbale de maanaam ci misaal bu fekkee ndaw si jëkkëram dafa faatu ci bëccëgub altine tombeek ñaar fukki fan ci weer wi bis booba lay tàmbalee compte ci heure booba lay tàmbale su demoon nag ba jant biy waaja so ci weeri lislaam yi jazakumullahu xayran masala moom yàgg naa ko wax waaye tey damaa fàtte janvier février mars avril mai yooyu kenn du ci wàññi idda kenn du ci wàññi lenn ci li ñuy wàññi ci lislaam lu tax bala nga ko woon xam dafa am erreur bu ciy nekk gis nga soo wàññee ci weer yi da ngay def erreur waaye weer yi nga xam ne mooy ashuhur xamariya ci la ñuy wàññi muharram safar ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة mu jeex yooyu la ñuy wàññee bu fekkoon bi timis ji jot la borom kër gi faatu bis boobu kenn du ko wàññi parce que beneen bis moo dugg si beneen bis la foofu tamit nga bàyyi xel fi heure bi tàmbalee tamit ndax l'islam timis lay tàmbali mu des nag jigéen ji nga xam ni borom këram dafa faatu te yëguwul ni faatu na fam jotee xabaar ba lay eddawoo donte am na juyoo ci borom xam-xam yi wallahu aalam
ñaar ñi nga xamante ne seen dafa aram sa diggante ndax dañoo bokk naan ko doon
masala moom borom xam-xam yi dañ cee juyoo juyoo gu yaatu waaye lii ma la ci bëgg wax mooy cay arrajax juyoo gi mooy ndax macc maccaat la ñaari namp wala boog ndax nampalu dama ko doon nax la rek wa illa dalay nampal ba nga suur ak ndax day nekkum ponkal nga doog koy nampal wala ci ñaari at yu njëkk yi la li gën a wér mooy ci ñaari at yi ñuy nampalee ca la nampal gay nekk exception bale amoon ci jamono yonent bi loola ci xususiyaati nabi la bokk sallallahu alayhi wasallam bu mu bu mu bu mu jànn xelaw kenn kon ci ñaari at yu njëkk yi ca lay doon muy fi ñuy nampalee gone bu nit ki weesoo fu ñu koy nampalee loolu taxatut nuy wax ñaareel mooy nampal ga tax ñuy wax mooy nampal gu am njariñ waa sexal ko ween wi rek yàbbiwaat loolu taxul ñu naan ak nampal waaye nampal goo xam ne maa fataqal amaa am na riwaay bu ñëwee noonu mooy nampal goo xam ni kat xale ba reggee na ca te nekkut benn yoon Aïcha doon wax ni am na loo xam ne day doon nañ ko jàng muy aaye ci alquran doon nañ koo nasaxal waaye nag àtte baa ngi fi des ba tey mooy fukki nampal yu bokkut moom la ñuy compter waaye balaa yonent bee faatu ñu def ko juróomi nampal yu bokkut kon daal ci gàttal daal la tudd nampal mooy loo xam ne da ngaa nampal nit ki ba mu regg ñu xam ne lii moom reggal na biir àgg na ca nangam loolu la ñuy kontal naam te nekk ñaari at yu njëkk yi wallahu alam même bu fekkee yàggut même bu doon ci benn fan la mbaa ñaari fan mbaa ñetti fan lay doon wallahu alam
kii nee na dafa dem ci nee na li nga tudd ci sa waxtaan ci ne labat kii labat dafa war a dem ci wali yi wali yi mooy si ba noppi boobu ñëw ci ndaw si nee na loolu est ce que du bind yow arab est ce que du aada yow arab ndax moom nee na dem na ci def na moom ba mu demee wali yi ba ko ne est ce que gis nga bopp maanaam sonal la ko noppi est ce que gis nga xale bu jigéen ba pare loolu ñëw maa ngi lay wax loolu
waaw même Sénégal Sénégal am na ñoo xamante ni boo leen waxee loolu dañaa demal ci ndaw si ba pare man mënu ma cee wax loolu loolu bu dee loolu ko ñu ko tontu loolu moom culture la Sénégal ñun loolu du suñ culture waaye ca ca kaw ga nag ñun ñu yaroo ca kaw ga loolu culture la fa maanaam nga ñëw ci góor gi ni ko man kat gis naa sa doom bëgg naa ko mu ne ah bëgg nga ko nga ne waaw mu ne diw kaay mu ñëw mu ne kii de yaa ko fi indi waxtaan leen maa ngi ñëw daal di jóg dem yoonam gis nga bàyyi dañ doon dund dund sunna yu dëgër nag am na ci yoo xam ne sunna yu dëgër la jug baleen daal dem yoonam bëgg nga am bëggul muy nakk nakkal góor gi jug bàyyi ëffal leen li ngay naan ëffal mu ëffal leen yooyu ngir lan ngir da da lay wan ni ci am na ñoo xam seen culture mooy doo njëkke ci kee léegi nag loolu du aada déedéet loolu mooy loolu mooy doxin wi donte nag wax naa ne ñàkk koo def duñ ñu da ngaa def bàkkaar déedéet dañ naan la jaaroo ci yoon wi looloo gën te it moo gën a jur mën a jur fit moo gën a mën a wuññi fitna ndax xam nga tey ndaw si mën ngaa ñëw ni ko dama laa bëgg nangam fekk way juram am na ku mu ko nar a bëggal mën ngaa ñëw dama koy dama koy bëgg fekk am na ku ci joxe kàddu ba pare ila axiri mbir yoo xamante ni xëy na ca kilifa bu ca àggoon mën naa bañ a yegg ci ndaw si ba fitna di ko jurul tey boo dikkoon ci ndaw si direct fekk am na ku mu jox kàddoom ba pare du bokk ak boo demee ca way jur wa ndax boo demoon ci way jur fekk am na ku mu jox kàddu su boobaa fa lay yem doog àgg na si waaye ndaw si boo ko yeggee mën naa def politique sax bu fekk kii ko gënal mu daal dàq kee indi la ba indi fitna yooyu yëpp mën naa am wallahu taala aalam
kii nee na ban conseil nga koy jox su fekkee ne dafa bëgg a takk soxna ci beneen xeet bu war a xeetam te ay waajuram dañu opposé wu ci loolu.
ala kulli xaal ci wàllu wér gu yaram de loolaa gën a baax ñi la gën a jege ci wàllu deret xëy na ci wàllu wér-gu-yaram dañuy wax ni du ñëpp nag waaye léeg-léeg feebar mën na faa juddoo amaa bu dee anam gi gën a yaatu nag xeet wi nga bokk loolu moom mën ngaa bañ a bokk ak deret waaye ngeen bokk xeet fa la gën a yombee dafa am ñoo xam ni génn si xeet wi nga nekk dem tekki weneen xeet loola mën na leen a jural fitna foofu nag annaasu fi hadihi al masala ahada rajulayn masala mi nit ñi ñaar lañ ci am na koo xam ne da koy def parce que daa bëgg nga takk sa mbokk ndax loolu mooy moom la gëm moo gën a baax te l'islam da cay ànd parce que nit ki sa mbokk nga gën a jege mbokk gën a dugalante loolu am na ci droit moom way jur am na koo xam ne da koy parce que ngëm-ngëm la dafa gëm ni diw warta takk diw muy ab aqiida boobu moom baaxul su boobaa dañuy wax ni xëccu ak fippu yeex koo def moo gën teel koo def segam dees na ko def loolu mooy lan mooy seet ku waxtaan ak mag ma boo demee ci askan yi léeg-léeg da ngay fekk ko baay joo gis am na ku mën ca moom dara yaay joo gis am na ku mën ca moom dara su booba am na ay xutat yu nuy jaar loolu nag buntu diisoo ca lay gën a baaxee nit ki diisoo ku xam mbir mi boo ci diisoo nag ku xam dana la sa bàyyi kan mooy xaritu benn bakkanam boo xam ni yàgg naa ba jàpp mu bàyyi loo sa yaay kan mooy xaritu benn bakkanam boo xam ne mën na ci moom dara wala kan mooy sa ndijaay ah wala yu demee noonu xata ba àggoon ci ñi nga xamante ni diw sax moom dañuy diwénub sëriñam sax ñu ne nañ dem wooyu kooku ndax kooku xëy na mën ci yii yëpp ay tajaarib la yoo xam ne gisees na ko kon jaar ci wasaa'il yooyu moo gën nit ki ñëw rek di fipp damay def lu ma neex parce que mën ngaa def lu la neex dajeeg lu la neexut dëgg la ndaw si mën naa am diine te bokkul ci sa xeet waaye bul fàtte ni mën nga koo def de am ca ndam waaye bu ndaw si jikkee moom du am ndam ndax bul fàtte ne ndaw si bu ñëw sëy see bu dee kër famille la ñoo ko mën a yaatal waaye yow du du yaa ko mën am na ñu ko def nag waaye bañ ko defee ba ci biir réccuwaat nañ ko parce que ndaw si bi mu dikkee fekk na fa ay xeeti xat-xat yoo xam ne waaja bu jaaran fa mu war a jaar lii du am ila axiri kon nag buntu boobu li ñu koy nasiha mooy utal ay wasail bu demee nag ba wasail yooyu tënëg waa su boobaa nit ki nag mu doog a xool nag fan lay jaar te loolu jàpp naa ne boo amee ku ko jege ku am xibra tuuti wala war ma xam-xam mën na ko ko dénk wallahu alam
kii nee na su fekkente ne dafa chartante ak ki muy takk ne du ko takkal mu jus mu ne loolu ci biir ci biir sëy bi kontaan bu ci moom est ce que su boobaa mën na mën na ko takkal mu jus su fekkee loolu chartantoon avancé
ala kulli xaal loolu moom wóorut loolu moom wóorut yàlla daal subhanahu wa taala may na nga takk benn ñaar ñett ceet gi bu mu neex mbaa nga nopp ndaw si bay tax nga naan duma la wutal wujjëg mën naa yem ci benn nag ñi ko mas a wax ñëpp wàqi nañ maa la ko wax amul duuna sis naa nag amul 95 amul 96 amul 97 pour cent ñi ko mas a wax ñëpp wàqi nañ waaw 100 pour cent la moom maanaam loolu kenn du ko def ci déedéet parce que li ko waral mooy àddina dafa wóorut même nit ki bi mu koy wax mën naa fekk ne loolu loolu la gëm bi mu koy wax mën naa fekk ni fas yéenaa respecté kàddoom waaye da ngay dund da ngay dem ba mu yàgg gis nga fi nga nekkee ndaw fi nga nekkee waxambaane fi nga nekkee jeune fi nga amul soxna fi nga amee soxna fi nga amee benn fa ngay amee ñaar dund gi day suppeeku moo tax gis nit soppeeku fekk wala du ma moo soppeeku de dund gee ko suppeeku suppi par force loolu nag comme nit ki maîtriser wu ko bul charte yooyu mukk charte nag su fekkee daganal lu yàlla araamal la wala araamal yu yàlla daganal kenn du ko compte su fekkee waa ji dañu woon ndaw si duma la wutal wujj def na lu ëpp ñu dem ba ci biir mu gis ni faw mu wutal ko wujj su boobaa bi ko wutalee wujj defut bàkkaar waaye dañ naan ko def nga lu bon ndax benn wor nga wor gi mooy bu fekkontee ndaw si waxoon nga ko lii amaan na moom du ca dugg léegi nag jigéen ji am na droit ni man mënu maa wujje moom am na ci droit loolu tamit bàyyi leen ci xel nag jigéen am na ci droit ndax ragal wujj mooy tax mu di ko wax déedéet waxuma droit boobu de am na koo xamee ni moom ci yaramam yëg ne dafa feebal te wujje dafa am lu mu laaj loo xam ne moom gëm na ni bu ko defee du ko mën mu gëm ni mënul wujje kooku benn la am na yoo xamante ni mbiri jigéen la xëy na yéen góor ñi di ngeen ko xam waaye jigéen ñi léeg-léeg nga waxtaan ñu wax la yoo xamante ni yu raisonnable lay doon yu yan nang yooyu nangu ni lii war naa mën a tax nit ñi du wujje te da nga cee ànd ak da nga xam ni lii ngànt la donte nag keneen mën naa bañ a ñëw mu nekk ngànt ci moom waaye ala kulli xaal bañ koo sartante daal mooy li gën donte charte boobu nag comme daganal lu yàlla aramal wala aramal lu yàlla daganal loolu kenn du ko compte léegi li gën a wóor daal mooy booy wax daal waxal la nga tollool di nga ko def nga ne ah defaguma ko de daane ci sa xel mi nga ne nekk gu ci de di nga ko def ak doo ko def nga ne loolu moom yàlla la wóor ba nu yegg ca la Xusayfa doon def masala mi loo ci xam mu ne yegsi naa ñu ne mu ni bàyyi leen ba mu yegsi bu yegsee ngeen laaj ma ko ma tontu ko jàpp naan loolu mooy li gën a wóor wallahu taala alam
kii nee na dafa dem rabat kenn ku ci dee naa ko am na ku fa ne nee na su demee toog nee naa ay dem gis ne kenn taxu ko est-ce que mën na delluwaat xoolaat xoolaat ah waaw six mois sax boo ko toogee delluwaatal même six mois sax ëpp na di wa fa nekk kay ñetti weer sax bu la neexee delluwaatal parce que mbir mi daa war te yàgg ngant nag mën naa am bu tax mu yàgg waaw ngant yu islam di nangu lu tax nga xam ne lii ngant bi du ci ndaw si du ci yow mën na nekk ci kilifa wala mën naa nekk ci yow waaye ngant bu la lislaam nangul la yooyu tamit ñu bàyyi ci xel ala sabil misaal wal ixtisaar nit ki mën naa jàng ba njàngam yegg ñu wutal ko lëggéey mu tàmbalee fayeeku labat benn jigéen dama koy bëgg a takk kut kut sa bàyyi ne la déedéet sa tante sangam bi ngay jàng dafa sonnoon ci yow sa nangam nangam defa bu ma ba nga bala nga am sama ngërëm defal ma leen nangam nangam doog a takk soxna mu wóor la ni man nga ko kon am nga fi ñetti weer yoo xam ne yii moom wóor na ni mënoo fee takk parce que bëgg ngaa def lim waxte am na ci droit te lu dagan la nga fas yéene def loolu loolu ngant la te ngantul lislaam di nangu lay doon su dekkee amoo beneen pexe loolu dama koy joxe comme misaal rek am na yeneen yu ni mel kon su boobaa ngant boobu islam da koy nangu léegi nag su fekkente ni ngant amul nag su boobaa nit ki moom sañ naa tànn muy ndaw si kam gërëm wallahu alam
kii nee na ñàkk a jaar ci yoon bu baax bi yoonu la bu baax bi lislaam jàngale est-ce que loolu forcément dafay am ay jeexit ci mariage ay jeexit yu bon ci mariage waa laa shakka da ciy am jeexintal du lépp nag waaye li ëpp li gën a wér mooy li ëpp da ciy am jeexintal li ko waral mooy ñi ko ñàkk a def ñëpp bi nga waxtaanee ak ñoom am na loo xam ni yow yaa ma bett yow ku ma waxoon nii ci yow parce que li tax mu bett la yaa njëkk a bett sabab parce que yaa jàdd foo foo warta jaar am na loo xam ne mënoo koo xam ci moom parce que da nga jaarul ci labat bi l'islam bëgg laajte ga nga war a laajte laajte woo ko am na jikko yu la ump diisoo ga am na koo xamante ni am na lu mu ca xam da ngay diisoo ak benn waaye mu ne la sa waaya bu ci dugg de ndax kii kat xam naa ci moom nangam ak nangam gëm naa ni bu ngeen defee du sotti far kooku diisoo ak moom nga dugg ci kooku beneen erreur la ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ay ngant la kon ñàkk caa jaar wéraayug sëy moom du ca jeexintal moom wéraayug sëy bi ndax sëy bi wér na moom dana wér moom bu soobee yàlla waaye nag ca la ngeen di dund mën nga caa mbetteel te fekk ñàkk labat wala jaar ca fa labat gërëm moo ko indi wallahu alam
kii dafay laaj su doon tànk mooy ki bokk ak sa ndey bàyyi wala ndey wala bàyyi ndax kooku dagal bi nit ki takk ko
sa doomu tànta mooy ki bokk ak sa yaay ki bokk ak sa baay koo xam ni mook sa baay ñoo bokk kooku sa lan la ci wolof sa doomu bàjjen kooku mën nga koo takk sa doomu bàjjen mën nga koo takk comme ni nga mën a takkee sa doomu ndijaay wallahu alam
kii dafay laaj naka la jigéen di gaarale boppam waa bu baax ak ndax day wéet ak moom mu laaj ko.
wasaayil yi moom nit ki mooy seet la ko gën a jub ba ca gën nag mooy dem ba jàkkaarloo nga wax ko la nga koy wax ndax xëy na téléphone yeeg message yeeg yépp mën naa siiwali wax ak jottali te comme mbir la moo xamante ni te foofu ma baamtu fàttaliku loo xam ni yittewoon na ma lool ma fàtte ko mooy labat gi bokk na ci teggi ni mooy ñu fexe mu bañ a siiw moom laa leen junjoon ne yonent bi sasam ba muy labat Hafsa ba muy labat Hafsa wax nag Abubakar wax ko Omar wax ko Osman te wax ko Omar mi baayam te wax ko ñeneen loolu nag li tax ma préciser ci nettali ko damay nekk ak sama waa ji muy sama xarit benn bakkan ñu jegeyantoo maam ku may bëgg waxuma ko ko mu yëg ko mu ni ah ah sa waay kon léegi daf may nëbb kon léegi waaw waaw dama lay nëbb kay ah am naa ci droit su ma gisee ne amul benn intéressant pour wax la ko ndax yéen sa salaam am na ñu mu ko waxul ci saxaaba ya est ce que ñun dañoo taxoon dama koy nëbbu déedéet jàppal ni daal bu la waxee wax na la bu la waxul jàppal daa am gànt pour waxu la loolu bokk na ci liy yàq ànd yooyu dañ ci bàyyi xel moo tax ma tudd xadis boobu sànq su ko defee kon ba ca gën mooy ndaw si jàkk bu tànnee istixaara xool ba gis ni ku góor ki doy na ko na dem ba ci moom ni ko man de dama laa xool xemem la tànn la bëgg nga nekk sama bàyyi doom wasala bu ko mënut na ko woo téléphone donte bu mu ñaareel xutba bi parce que yooyu yëpp mën naa wasaare wax bu ko mënut seen jumtukaay yooyu message yi ngeen di jëfandikoo yëpp mën na caa jàll dara newu ci donte wóorut donte wóorut su ko mënul na am moom ku mu yabal muy jigéen wala góor yóbbante ko ko yooyu yëpp ay wasaa'il la fu mu ko mën a jaare tam dagan rek na ko fa jaare ku nekk nag ak la nga mën yaa ko xam wallahu aalam iyyakum kii nag ñaareel laaj bi mooy ndax labat àqu ko ak lu sori ndax loolu dagal.
waaw loolu defe naa tontu nañ ko labat moom wax dëgg yàlla bu fekkee nit kee ko tey di ko ab ab bu sori moom def na lu jóyeg lislaam ndax dina wér sëy bi bu amee waa wérug sëy bi jotewut ak ja juy njuy nga jàngalee lislaam mën ngaa def ay njuum te yoo xam mën nga caa am sax bàkkaar wala yeddaange te du tee bu sëy bi amee dagan na waaye nag du loolu la lislaam gërëm te it lu la ca fekk nag yenul say ndax ba ma yetaadda xudullah faqad zalama nafsa fi yàlla ne nañ fa yem moom ku ko joggi rek yaa tooñ sa bopp comme amuñ ñu benn diir waaye nag nee nañ nu mu gën a gaawee gën a baax guddal gi bu fekkee dafa tegare ci coobare kon yéen a ngi bàkkaar te li muy jur ci ay musiba moo ëpp wallahu alam iyaakum
ndax góor ak jigéen mën nañoo sëy fekk mosuñoo gisee mosuñoo xamante mosuñoo daje dañoo xamante rek à distance loolu
masala moom mën naa yóbbaale ñi xamante ci internet bi wala ci photo wala ñàkk a labat waaw mën naa nekk waaye nag wóorut euh, ku mel ni Ibnu Taymiya day wax ne bu fekkente ne labat sax amut li ñu tuddee labat amut gisante daa am rek bëggante am rek ñu mayante te labat amut nee na sëy wéeru sëy bi moom am na waaye nag wóorut moom li tax wóorut mooy dafa am yoo xam ne boo ko joggee rek mën nga andi catastrophe ci sëy ba su ko defee kon jigéen ji nga xam ne ci téléphone ngeen di déggante mbaa ci internet ngeen gisante xam ngeen ni seen caméra yi image yi muy joxe ak vrai yi léeg-léeg dañuy wuute photo yi nag image yi muy joxe moom it ak vrai yi tamit léeg-léeg ñu wuute de léeg-léeg mu indi la koo xamante ni dakaa dakaa dakaa defar ba mu xees te fekk xeesul de léeg-léeg mu indi koo xam ne da koo defar ba mu ba mu jekk te fekk melut na mu war a mel de waaw nit mën naa tilim sax mu setal ko seen appareil yi moo tax yooyu moom sukkandiku ci wóorut moom li gën a wóor daal mooy gisante donte lee buñ ko defee nag jàdd nañ tuuti yoon waaye nag du tee sëy mën naa wér wallahu alam waaye ci ko laaj naa ndax su fekkente ne wax naa ak ku jigéen ñu takku ko waaye mu fekk ne kooku parewul ndax mën na waxante moom ne day takk keneen koo ko xaar ba ak doom takk
waaw moom ku góor ki de loolu laa mën naa nekk ci moom mu des ci ku jigéen ki ndax mën naa nekk ci moom wala déet ndax ku góor ki moom maadaam ak ab kàddu dong la boo xamante ni demoo dikkoo woote woo defoo relation yi islam tere te it ndaw si bëgg nga ko bëgg ak sëy ak moom ah loolu mën naa nekk parce que léeg-léeg bëgg tamit da leen bàyyi xel loolu nit ki mën naa bëgg nit xeetu bëggeel goo xam ni xëy na am na fu ngeen jaar wala loo xam ci moom wala loo dégg ci moom wala loo xam ne wax dëgg yàlla sa xememteef dindi ko yombut ah nga mën a dem takki keneen loola mën naa nekk mu des nag ndaw si ci jëmmi boppam toog gi muy toog di xaar te am ñeneen ñu ko war a mën a bëgg ndax loola mën naa nekk ci moom nañ bàyyi xel nag fitna mën na cee juddoo de julli goo xamante ne daanaka yow li ngay jull doo ci xam dara ndax li ngay xalaat loolu mën na caa juddoo de jokkoo goo xamante ni amut ab wala teggin yañ ca war a am doo ko sàmm loolu mën na cee ndax yàggaay ga tey it yéex a sëy nag gënut ci jigéen parce que baaxul boo gisee jamono bii noonu lislaam yi xeex yéex a sëy gis nga ñiy xeex yéex a sëy dañoo xamul sax ne yéex a sëy gis nga médecin yi ñoo la gën a xam ne ci wàllu santé yéex a sëy sax baaxul yéex a sëy baaxul gis nga yéex a sëy ak bañ a sëy mook garab gu yéex a meññ ak gu bañ a meññ mooy am laaj leen baykat yi garab gu war a meññ te meññut boo seetloo xob yi xob yi day commencé di kotamu day yàqu garab gu war a meññ laax gu war a meññ te meññut toogal di ko xool ngay roose day màgg waaye da ngay gis day commencé di déformé wu. gis nga jigéen bu tolloo ci sëy war a sëy te sëyit mi ngi commencé déformé wu bu yowoon na ko xam moo tax islam digle teel a sëy kon toog gi di xaar du sa bénéfice. te it carrière yu jigéen gis ngeen ni mu gàttee su dee fas yéene nga am ay doom xam ngeen ne góor carrière am moo gën a gudd carrière yu jigéen ci sëy ndax jigéen daanaka boo xoolee jamono ji diir bu gàtt lay toog rek daanaka dootul mënati am sëy doom wallahu a'lam
ki nee na ndax xool xar kanamu jigéen ci lu dul labat ndax loolu dafa waaw dagan na dagan na nit faw ngay xool mënoo gëm la ñuy tere mooy xam nga gis ak xool ñaari la yoo xam ne bokkuñu borom bi subhanahu wa taala dani qul lil mu'minati ak qul lil mu'minina yaghuddu mu ni min absaarihim absaar basar la jëfandikoo gisul jëfandikoowul nazar nazar mooy xool waxul yaghuddu min anzaarihim wala anzaarihinna nit ki mënoon damay toog duma xool dëgg la ah waaw ko ko defee te xëy na da nga koo man waaye nag nit ki xool ko ba xàmmee ko xam ni kii mooy diw wax ak moom xool ko xam ki ngay waxal kan la yooye jàpp naa ne nekkul lu lislaam di tere bu fekkee ëpput àggut fu mu war ta yegg kon yaqudu min absaarihim gis gi gis gi gis gi mooy nit ki nga xamante ni xool na ba xàmmee na waaye xool ba am na lu ca des nag ndax ginnaaw xool ba am na lu cay topp mooy ma nga cay gisee ay taar ma nga cay bànneexoo ma nga cay nangam loolu la ñuy tere wallahu taala alam
ki nee na ndax fase bu bëri yi ñu nemee ndax ñàkk labat ñàkk jaaroo labat ji ci yoon sa boobu mooy mooy sa
benn bis am na ku ma mos a laaj laaj bu mel nii ni ma fase gu metti gi ñu gis tey lan moo ko waral ma ne ko ñàkk mën a muñ ñàkk mën a muñ du labat de yii am na ci ay symptômes ak yu mu ci waaj waaye ñàkk mën a muñ la maanaam dañoo muñ lante wut sëy dafa laaj sëy mooy couple bi gën a laaj muñ sëy mooy couple bi gën a laaj muñ muñ lante amut ku jigéen ki même même ci wàllu ménage yi nga xamante ay jigéen ñooy daje di wujjante sax bokk na ci li ko waral ñàkk mën a muñ mooy base bu mag bi ñàkk ragal yàlla doog cay topp ndax ku mën mënta muñ doo mën a ragal yàlla beneen bi ci des nga doog a ñëw nag ci erreur yi nga xam ne dañ koy am waaye base bi dëgg dëgg dëgg mooy ñàkk mën a muñ ndax jàpp naa ni bari waa nag ay góor lu leen soxna yi def ñu fase wala di ko foye fase ci boppam kenn du ko foye mbokk yi fase baat la boo xamee ñàkk koo mën a wax sax mooy njàmbaar la góor ga dina wax naan sama kër gi kenn du fi tudd aw fas fas rek fas baatam fas rek nga xam ne fas moom jotewut ak fase dara boo waxee fas mu ne déedéet tuugawaay waxal daaba ji ndax bañ a tudd rek baata fas ci kër gi kon jàpp naa ni ñàkk koo mën a wax sax mooy ngóora góor ñi faw ñu mën a muñ mbokk yi mën a muñ gi mooy bariwaana yooyu jàpp ni waaye man damay sam morom ahankay yaay moromam parce que yow ba nga bëggee takk gis nga fi mboccaara ci takkoo leen parce que xam nga ne duñ say morom gis nga fi maire yi takkoo leen parce que xam nga duñ say morom da nga koo xool ba xam ni mooy sa morom nga takk kon duma sa morom ak da nga may fontoog da nga maa yab léegi yow yow soxna bu la yabut yabug miinante la woo ma yabug ëpp yabug bu la yabul ci mais kan la yab gis nga kon faw muñalante di am yu bari yoo xam ne ay njaaxum la jigéen ñaa ngi koy def tey jigéen ña dañ ko doon def démb seeni jëkkër di leen ko muñal xam nga am na lu la sa soxna ñi may def loo xam ne sa moromu góor ñi mewu la ko def ci mbedd mi kon li tax mu def la ko mooy def laa miin rek yooyu yëpp faw yaatu dana am ci jigéen ñi it faw ñu bàyyi ci xel faw ñu muñ góor gi amul faw nga muñal ko am ak naqari deret ñoo bokk ndey ak baay ñàkk ak naqari deret ñoo bokk ndey ak baay nit ki bu ñàkkee rek day commencé naqari deret yooyu yëpp nag faw jigéen ji nekk ku xam di ko moytandiku muñ lente bu amoon dëgg-dëgg li ma gëm mooy yëf yi dana wàññeeku wallahu alam
ñu ne ma ban góor ban góor mooy góor nga xamante ne jël soxna ko ak ci moom.
góor boo xam ni ci wàllu wér gi yaramam day xam na ni feebar na ba mënta sëy te kum jël kon dina ko jox yi ameel àq bànneex wala ki nga xamante ni moom dara ba dara booloo jeex amu ko te bu andi woon ndaw si du am fu mu ko dugal du am lu mu ko jox mu lekk ba di ko lor su boobaa day xaram ci moom mu jël soxna léegi nag mu des bu fekkee ndaw si mën na koo muñal loola su boobaa day dàqu su fekkente ni ndaw si ci boppam moo ni ku góor ki takk ma man de dinaa la jàppale financièrement te fekk muy dëggit nag te nga wóolu ay kàddoom su boobaa mën ngaa takk jigéen ji nga xam ni moom yorut borom kër borom këram daa faatu misaal laay joxe rek waxuma bii kese borom këram daa faatu bëgg na ku ko góoral te gis na la nga doy ko donte xam ne da ngaa feebar mu nangul la loola nga nangul ko ko su say dagan na ca moom ci ñoom ñaar ñu ànd parce que leeralante am na ba noppi te ku nekk lorante du ca am wallahu taala alam
li koy wax daan na lislaam wax góor nga xamante ne dafa wàcc soxna mu ànd ak ëmb bu am cinq mois nee na ci balaa bu ko wàccee dundalu ko jël ko en charge bu mat deux ans mais gannaaw bi dikkaat ne ko sama jabar nga ba tey te su fekkente ne sëy nga keneen da ngay jaar loolu loolu la ci islam.
te moo ko wàccoon waaw bu dee wàccoon na ko rek kon kooku moom mooy xamul lislaam kooku daa war a jàngi lislaam moom balaa muy lijjanti kuy jabaram na lijjanti luy lislaam ba pare ndax parce que moom bu xasee am moom nekkatul sa jabar mu des nag li nga xam ne yenn ci góor ñi dañ koy def wàcc soxna ba noppi doo ko dundal loolu moom njuumte bu rëy a rëy la njuumte bu rëy te jàpp naa ni maanaam ku mat dafa am yoo xamante ni maanaam góor gu mat dëgg dëgg dëgg waru koo nangu parce que day gàkkal deram te ëllëg du añ du reer waaye nit ki war naa rafetal taarixam sa taarix war nga koo fexee bindal sa bopp yow balaa ngay faatu balaa ñu la koy bindal am na yenn xeeti jëf yoo xamante ni boo ko defee bu ko histoire nettalee da lay doya dal kon loolu góor yi koy def dañoo juum njuumte gi mooy soxna si boo ko wàccee te fekk mi ngi ëmb nga wàcc ko fekk mi ngi ci idda wa nga wàcc ko fekk mi ngi nampal su booba yëgal ni yaa ko war a dundal ndax gone gi mu yore su ko defee nag dundal ga nag mu des ca la ñuy diisoo ak la ñuy dëppoo ak la borom xam-xam yi lii kat moo méngoog jaww ji ñuy dund fii ci Sénégal wala bu doon beneen réew loolu mooy li gën a rafet waaye nag su fekkente ni góor gi def ko def na njuumte def na njuumte te bu lislaam doon atte danaan même bu ko def danaan ko bor la da nga koy fay parce que waajib la bor la da ko war a fay comme lislaam atte wul nag bu ko fayee baax na bu ko fay it ndaw si na muñ te xam ne doom ji moom moo ko jur wallahu aalam waaw xanaa euh, ça dépend ci yéen waxtu daanaka moom ñu ngi bëgg a jeex
kilifa yi ñu sax benn dénkaan ngir ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yoon la ban dénkaan yi boo xamante ne boo amul lu mel ni ko ak ñi nga xamante ne wut nañ ci sëy.
ndénkaan bi de mooy déglu mawdoo bi rek jéem koo jëfe ah waaw ndénkaan bi kay defe naa mooy déglu mawdoo mi ak mawdoo yi ni mel yi nga xam ne dañuy wax ci wàllu labat ñu jéem koo déglu bu baax jàngatal ko nafaraat ko ndax jàpp naa ni léeg-léeg am na waxtaan wu ñu defoon ci jigéeni sëykat dëgg dëgg dëgg naka lay mel bokk na ci la ma doon wax ci muqaddima ba mooy yu waxtaan yu mel nii dafay dimbali ki nga xam ne dafa toll ci buntu sëy mu mën a préparer waat boppam kon chance am la moo ciy ëpp chance ki tàbbeegut ci labat moo ciy ëpp chance ki nekk ci labat te dara soppeegut it am na chance ka ca topp mooy ki nga xam sëy jot naa ñëw mu doog a rectifier xëy na yenn yi ñu mën a rectifier waaye ala kulli xaal li nga xam ne xamees na ko ci istiqra xamee ko ci gis xamee ko ci xam-xam xamee ko ci expérience mooy njuumte yu bare bare yoo xam ne mi ngi am ci sëy boo ko seetloo ba ci biir ñàkk a sàmmonteeg teggi ni labat da koy waral góor gi dem ba mu yàgg mu am déception ci ndaw si wala ndaw si am déception ci ku góor ki li koy indi li ëpp mooy jàddoon yoon wa ca commencement ba leneen nga waxtaan ci ni nga laaj ko mu ni man kay yàlla xam dama ko gis rafet jot ci moom rek affaire bi sax yàggul daanaka ñaari yoon lañ gisante la ñëw suñ kër sax ñu daal di ma koy may loolu njuumte la parce que waroon ngaa gëstu nga laajte bañ xam ko mbokk yi tamit nañu góorgóorlu di dimbalante buñ la laajee waxal la nga xam yow miñ waxalit na nga dimbale ci kala waxal waaw moom kay ku baax la yi moom kay macha allah ku ko am nga bëgg rek war fekk xam nga ci ayib ju ne weng wengaanal loolu lislaam da koy tere al mustashaaru mu'taman ki ñuy diisool ku wóor la war a doon ku ñu wóolu la war a doon tamit jigéen jiit bu fekkee dañ laa laaj loo xam ci diw diw mooma dala da nga koo bëgg wala da laa jege wala yooyu warul tax nga ñàkk maanu nga wax loo xamut waxal la nga xam een nit ki it bu mu tax nga waxal ko lu amut ah diw kat moom du yore soxna fekk yow daanaka da nga koo een rek moo tax ngay wax loolu loolu baaxut loolu du maanute kon daal ci gàttal sàmmonteeg teggin yi lu ama ama ama am solo la bokk na ci ndénkaan yi mooy ku góor ki ci jëmmi boppam mu farlu bu baax ci tànn melokaan wi nu wax ci jigéen ak ci am solo ak ci am solo am na ñoo xamee ni wax dëgg yàlla couple yeen yore ña ngi cay dund lu lu lu am solo ci mbégte ak jàppalanteeg dimbalante parce que jaar nañ fañ war a jaar am na yoo xamante ni fi mu nekk nii daanaka la ñuy dund moom boo ko seetloo ba ci biir diw di way jëkkëram diw di way jabaram dong nga fa des nag buum koy waaj a dagg la donte daggagut su ko defee buntu boobu ñu bàyyi ci xel jigéen ji nga xam ni moom it daa toll ci sëy ku lekk mun yàcc yàccaaral rek di xaar chaque jour rek ñu ñëwal ku nga xam ne ku ne mën naa ñëw xam nga ñëw kaay ku ne mën naa ñëw moom ku ne ñëw waaye nag comme islam may na ko buntab mu tànnal boppam bu fekkee mën na koo exploiter ci na mu gën a baaxee na ko def ndax am nañu ko def réussir comme ñu Xadija ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci salafu saalih ku jàng seen siira bari na lool ci ñu ko doon def te doon ca am ndam nag beneen bi ci des mooy ki nga xamante ni dafa am kum yilifit mu bàyyi ca xel ci bu amee ndénkaan yu mu ko mën a jox wala ku mu ko mën a tànnal ku mu ko mën a wutal ku mu ko mën a gaaral loolu tamit ci am solo la bokk ama nuqtatul axira mooy diisoog istixaara moom ñaari yëf la yoo xam ni lim mën a indi ci régler ay problème bari na torop bari na lool lool lool ba jéggi dayoo ndax léeg-léeg doomu aadama ci buntu diisoo mën na caa jubbantee lu bare bare bare bari ci bés istixaara yàlla mën ko caa jubbantil lu bari wallahu taala alam
kon jazakumullahu xeyran ñu ngi ñaan message bu baax ci waxtaan bu am solo bi ak ci tontu yu leer kon ñu joxe benn information lépp maanaam programme yi fi am ci séminaire bi ku ko bëgg a gis ñu ngi la ñu ci site dégg diine point net à partir de mois de janvier bi donc ku ci bëgg a jot rek mën nga connecté ci site boobu dégg diine point net incha allah dañuy fekk waxtaan yépp ci audio ak ci vidéo yëpp incha allah